Mm. baax a baax a baax suñu daanaan ñi nga xamante ne lañu woy dara mënu ko fay asalaamualeykum yéen nga xamante ne yéen ñoo bàyyi xel guddi alxames jàppandir na sa suñu gox fii nga xamante ne ñoo leen koy indil di Gambian Talents Promotion ñoom ñoo leen koy indil ba tax nag jamono ji di guddi alxames ñu ngi jàkkaarloo nag ki nga xamante ne eh, mooy Ibrahima Jawo moom la ñu jàkkaarloo ne a Jawo nag eh, duñu ko introduce ndi ku nekk xam na ne eh, bu ñu ko xamul si jëmma waaye xam nañ ko ci tur ba tax nag duñu ko introduce waaye dinañ ko delloo kàddu nuyoo boo xamante ne laaj ko jaamaam jaami njabootam su ko defee rek dugg ci programme bi kon Jawo nuyu nañ la. Eva ñu ngi laa fay bu baax di kontaan ci ah, li indi ci plateforme bi ah, di la wax ni ñëpp a ci jaama yow tam ñu la laaj sa jaam yaram di nuyu mbokki déglukat yi ak ñi seetaan ñëpp ak fuñ mun di nekk. waa jaam jaawo bala ñëw xuus jaar rek. Ah, Euh, ñuy rafetlu li nga xamante ne nangul nga ñu ko wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne da nga busy jot jamono ji yaa ngi ci taw bu métti métti barki démb rek nga jógee Denmark ñëw amaloo jot wax dëgg neex yàlla ñu ngi rafetlu li nga xamante ni maanaam jox nga ko yéen ñu ñoo bàyyi xel nag gis ngeen ko jaawo mu ngi ni su fekkee am nga lépp loo xamante ne laaj ak tontu la bëgg ñu laajal leen ko jaawo te bëgg leen a dugg a call seeni voice ngeen ko rotal foofu ci comment box bi su ko defee rek ñun dinañ ko read out pour jaawo dellu rek di leen fàttali ne leen Gambia Talents foofu ngeen ko kal fii ci Facebook papa Ousmane mo set page bu facebook page bi be tax na képp kuy dugal duma meuna gis te duma meuna a oo sa tur jaaw rek ñu xuus jaar gannaaw waxtu amut ñuy gëna rafet lu war bu baaxa baax li nga xamantene nangul nañu ko kon nag amul taxawaay jaaw sa diggante ak GDC eh, ñu gis ne da nga jalla pati yépp pati yépp nga jalla ñe GDC la na war a ah, jërëjëf ma wat gerem la gerem ñi setan ñepp Ah, il va man ku ma xam-xam ne man yëfi partisan politics du ko daan def man ku ma xam-xam ne am developmental worker aman educationist aman entertainer ame historian ah, man ci wàll yooyu laa doon yëngu ci wàlli ah, politics nag ñëpp gis nañ ma ci jamono struggle bi maay génn di wax di ko jaarale ci ee nit ñi ci wàlli history Ah, ju jaar naa yéen seen plateforme lu bari jaar naa ci plateforme mi Fatou Radio ak yeneen plateforme di ci waxtaan ah, jamono dem nag ah, Iva be youth si approach ma ne ma dañ bugga pour ma taxaw pour mayor pour youth si Banjuli Iva li ma ma dugal ci wàlli politics ma amoon nag une te li ma waxoon na ñoom mooy ne bu ma taxaw dama taxaw an independent candidate ndax dama gis ne Banjul dafa xaaj xaaj boo xamante ne yaakaar naa an independent candidate mooy mun a indi nit ñi su ko defee ñu nekk benn nga nekk ndey si ñëpp war sa kaw man lii laa gomoon jamono di dem nag parti yëpp di yëngatu ku ci nekk nag wàlli si ñëw ci man ndax foog naa ne man ci mburi ci lang gi yëpp man maa njëkk a génn maa njëkk a takka ngemba soo ko bàyyee xel yaakaar naa man going back to match laa génn fekk kenn yëngatu ci bokkut eh, ma jógee fi dem Banjul ak yooyu noonu yëpp pour uh, eh, def my consultations with uh, the various communities in Banjul, including the elders. ma def loolu jóge fa ñib si delluwaat tam ah, Banjul ah, feddaliwaat loolu ah, Iva political parties yu bari bari ñëw mu including UDP PPP doy waxtaan naa ñoom briefly rek ak ñi nga xamante ne ñooy GDC GDC nag ñoo ma gënoon a topp ak UDP ñaari parties yi ñoo ma gën a toppa Iva te nit ku nekk dafa am loo xamante ne moom nga de seet rawatina ci wàllu politique Ah, li ñu di wax ne nit ku nekk sa génn wala nga moom sa génn wala saa yi ko moom maam ñu ma àndal mu am ñoo xam ne ñoo ma taba muy youth si léegi bi ma parti si utal see rawatina PPP ñoo njëkk a ñëw ñu discuss ko youth si ne déedéet dañoo maintain suñu independence ñu demaat ba jëmi jamono mbiri UDP ñëw ñëwaat ñëw lu bari ay yoon yoon ñoomi neen ñu discuss seen at executive level benn tey ñu bañal ah, li tax ñu bañal li ko waral mooy UDP condition bi ñu joxoon mooy ne dañoo dem primaries am na ñeneenti nit ñu tuddoon ne ñooñu dañ bugg a taxaw ak ñoom ma waxtaan ak di senior executives including oncle Ousseynou ah, honorable nu Dabo ah, ak ñeneen ñu woon ma ne primaries dama am pour register ma interest ñu dem primaries den ku win Banjul kooku noonu la gaay di taxawal ñu feddali comme suma diggante yaay ak ñoom ci wàllu UDP la suma yaay was a militant ba pare moo doon mobilize Banjul Central so ñu feddali loolu wan neñ bëgg a ma continuer suma legacy mag yooyu te taraanga rek moo nekk suma diggante ak waa UDP ah Iva ni nga gis comme li ma laa wax suma yaay waa was a renowned person ah, in UDP ba bi mu génnee àddina ah, weeri koor bu jot Iva dama am pour feeñal loolu ndax ñu ne kuy suul jëf ah, doo góor koor bu jot oncle Ousseynou dina taal motoom def saako sukur ak maaloog yooyu yóbbu ko ba tey be tey ji si kër gi weeri koor gi passé moo ci mujjee bu ko defee jox ko suma rakk yi ñooñu séedaale ko nga xam ne ñoo ànda suma yaay kon nga xam ne loolu mbiri leena la awo oncle Ousseynou di anti may na nduur moo suma yaay suma yaay xoroja nduur la ñu jógee benn kiir baay kon nga xam ne foofu dama fa am wala ndax du so su doon ne mm-hmm. seet deret la wala seet uh, uh, kóolare wala mm-hmm. seet uh, diggante yaakaar naa demoon moo doon gën a yomba waaye condition siñ ma jox te ñi ma àndal ñu ne déedéet loolu moo tax mënumaa dem UDP léegi GDC bi ñu fekk see GDC ñu waxtaanee ñoom ñu am sarta yoo xam ne tëral nañ ko te ñoom ñu nangul ñu suñ sarta nangul dekkali Banjul man ah, movement bi ma am Banjul is called dekkali Banjul ñu allow dekkali Banjul ñu maintain their independence GDC baak ñu ñu baak ma put ma forward as their candidate ma run on their ticket bu ko defee dekkali Banjul tam ñu tànn foofu noonu ay ay candidates pour councillors yaakaar naa loolu moo nekk li nga xamante ne moo favor dekkali Banjul bañ ànda ak GDC lii moo waral suma dugg ci wàllu GDC. Jawo kon buñ la déggee Dekali Banjul dafa bugg a in collaboration ak GDC kon buñ la déggee mooy wax ji Iba yaakaar naa som nga ko op Dekali Banjul mooy movement bi nga xamante ne moom laa taxawal ay ndaw nekk ci ay mag nekk ci ay góor nekk ci ay jigéen ay kilifa ay ilimaan ay principal ak yooyu waaye li ci ëppa ndawi Banjul lañ ay youth yoo xamante ne ñu ngi dëkk Banjul ak bitim Banjul ñoo xamante ne waa doomi Banjul lañ ñoo ci nekk kon dafa mel ni GDC Irak dekkal yi Banjul ñoo nekk in collaboration ñuy nag taalal suñ loxo yeneen parti si bu fekkente ne óolu nañ candidate bi nga xamante ne ñun moom lañ am ñu wàlli si fekk si ñu bu ko defee ñu jéem a seet naka la ñu séedaale wàlli kansula si lii bente is open ah, waaw jaawo ba tey rek buñ la déggee ba tey suñ la déggee eh, ci nga xamante ne maanaam tontu nga ko am nañu wax ne jaawo daal eh, maanaam dafa bëggal lu yomba moo tax mu dem GDC financial aspect bi foofu la gaay di waxee lool am pour tontu ñooñu ñu ne daal da nga bëgg yomba moo eh, tax loolu loolu amul dara man ba ma toog nii di wax ak yow yëgaguma du dërëm du one p boo xamante ne jot naa ko from GDC mun naa la ko waatal IVRA bi ma commencé lii ak léegi li ma si spend ci xaalis su eboo ma ne dem na to to the tune of seven thousand pounds loo xamante ne ci suma poos la jógee ak ay xarit ak am di jaama waaye amul dërëm boo xamante ne jël naa ko si GDC as we speak purely xaalis bu jógee ci man la ci waa dekkali Banjul ak nit ñoo xamante ne góom nañ ma Iva leneen li tax ñu dem GDC mooy seen plan si li ñu li ñu mébét Banjul dafa nuroo ñun dekkali Banjul li nga xamante ne moom lañ bëgg a taxawal Banjul mooy wàlli set ndax ñëpp gis nañ GDC li nga xamante ne moom la honorable Kandeh ak ñim àndal doon liggéey biir Banjul lii bokk na ci li nga xamante ne yaakaar naa moo moo ri ah, youth ci Banjul dañ ma ne fu mu nekk nii dañ am pour ànd ak waa GDC gannaaw bi gars yi amee several meetings hello hamanda mangi on iva gisa tumala de bayangi on so fin bi so welcome in lay play ni jawa mang la dega so mu melni lolu motax ñu ñu Aka, ak ah, ñi nga xamante ne ñooy GDC li mo waral mo waral suñ lëkkaloo ak GDC IVA te nag ah, nit ku nekkal liñ do wax ne ku la nekkal ci naaj nga nekkal ko ci kër gi ndax biñ lëkkaloo ak ñom ba léegi amuñ dara luñ ci réccu luñ bugga ñoon ci luñ ñom ñu ngi ci fekk si te loolu moom sante yalla la waaw jaawo loolu leer na comme li nga wax la nga ne because ñu bari loolu lañu wax ne eh, maanaam daal eh, ko amul wéeruwaay da ngay neexa ba max moo tax yow nga dem jël sa boppa dégg ko GDC waaye tontu nga ko tontu bi leer na ñu gis nag ñun nii lañ ko gisee woon ñëpp jaaxle woon léegi waxoon nga ne jaawo independent candidate la ñu gis jaawo wàcca mm-hmm. Banjul ji welcome ko Mama Kandeh welcome ko askan bi jaaxle woon nag ñëpp ne waaw jaawo moom ndeke GDC la bokka lan nga am pour wax li because ñu bari fii ay fi ay màgget wala ay mag ñoo la gunge ci woon wala ñoo la ñu wala nga teg ni yaa ngi faa gis youths yi dekkali Banjul yaa ngi gis ñoom Huri Coor ah, vidéo bi soo ko riwaanee tuuti ñi eeg ci moto bi yaa ngi gis ñoom Kusi Diouf yaa ngi gis ñoom Jati Sarr youths yaa ngi noonu yaakaar naa Habiba nekk noonu wala Samba Diaw yaa ngi leena gis youths yaa ngi noonu kon soo waxee ne ñe ñeeg a ba pare tam ah, jotaay boo xamante ne ndaw yi neen la ah, yaakaar amu ci yaakaar na jotaay ndaw ñee mag ñi ñoo ko war a bokka ndax du dëgga jotaay boo xam ne ay ndaw yi kese la yaakaar du ci bari dëgg la ndaw yi nag ñoo ñëw approche ma waaye mu am mag ñoo xamante ni óolu nañ ma xam li ma mun ak fi ma munee ñu ñëw si te biñ ci jàppe ba léegi ay kilifa laa la wax kilifa yu mag a mag a mag biir Banjul bokk ci muy ay ilimaan ay nit ñoo xamante ne des experts wala ay professionals in their wok areas ah, ak ay ah, maire yoo xamante ne ay kilifa lañ ah, ci sen wàll yëngatu kon soo waxee ne ay youth bari wuñ ci boo xoolee yaakaar li ci nekk ci youth mu ëpp mag yi nga xamante ne ñëwoon nañ ci teer bi sax na jërëjëf leer na jaawo euh, kon rek ñu dem sa diggante ak mama kande naka la mel naka nga mel ak mama kande waaw man xam nga ñu bari ndeysaan dañ dut understand moo tax ma ne euh, yéen ay euh, wax dëgg bëggoon naa leeral lii sax bu yàgga yàgga yàgga dama waxoon ne su Banjul naa def press conference leeral suma relationship ak GDC musuma boka GDC musuma boka Ben Party holduma any parties Euh, membership card GDC nag ndeysaan wax dëgg ne yàlla biñ lëkkaloo ba léegi teraanga ak jaama rek lañ ñu woon ah su ma diggante ak honorable Kandeh wax naa moom few times yàlla xam na ne musuma koo teg bët musuma teg bët musuñoo gisante kon loolu dina la won ne nekkul ne loo xamante ne luñ toogoon la démba wala barka démba Iva wax dëgg ne yàlla xam naa ne moom tam euh, li nga xamante ne moom ndax moom lim wa lim ma wax bi mu waxee moom few times yi ma waxaa moom moom lu waa Banjul buga moom loolu la buga ndax every administrative area seen local committee bi li nga xamante ne ñoom moom lañ identify wala moom lañ bugga mom si loolu la aw bi la seen local committee bi yaakaar naa ñoom reme Diagne ak ñoom ah, Ibrahima ñoom Demba Diallo ñëpp ñu ngi maa dégga ñoom ñoom ah, Ilimane Diallo ñu ñëpp ñu ngi maa ndax dañ approach ci dekkali Banjul ñu ne ñu wax honorable Kandeh ne ko buñ taxawalul jaawo GDC buñ ko taxawalul buñ ñëwut fekkale ji jaaw ànd ak moom kon GDC buñ taxawalee beneen candidat ñoom duñ baax kooku kon nga xam ne loolu mag na Iva te nit li ma dee wax ne nit ku nekk sa genn waara nga moom sa genn wala saay ni ta comme te ñooñu ndegem loolu jaral na leen loolu rawatina man mi nga xamante ne doomi góor laa Iva waaw kon daal si gàttal sa diggante Mama Kandeh moom dara nekkul ci amul dara lu si la xasu alxaas man musuma gis honorable Kandeh wóor na yàlla bi ma demee Banjul yi ma dem Banjul fekk moom mu ngi moom tam bi mu nekkee nii Banjul gis nga ne maa ngi a ah, ba pare man maa ngi jógee maa ngi jos jógee too yàlla xam na ne li moo xam moom sa eggul ñetti yoon. leer na Jawo euh, euh, ba bi nag sa bi nga dem Banjul am na ñuy laam-laame si suuf ne Mama Kandeh moo a finance maanaam moo la jëndal air ticket pour nga dem Gambia euh, maanaam daal lépp lu war ci welcoming bi daal si dépense Ah, Iba maa ngi laa wax ne lii lëkkaloo la diggante Dekali Banjul ak GDC yaakaar naa lu war a toll ci eighteen vans li ma yëg yoo xamante ne ñoo hmm. ñëw keroog airport bokkewuta private cars yi ah, foo naa ne lu war a toll ci eight wala nine I stand to be corrected xam naa members si on the ground ñoo maa loolu ci diggante suma poste la ak diggante ak Dekali Banjul leneen li des yi ci topp a about ordre véhicule yi nga xam ne xaay nañ ko loolu GDC ñoo ko def comme ni ma la wax ne lii lëkkaloo la diggante GDC si ak Dekali Banjul ci suma poste la jógee man kenn fayalu ma ticket yaakaar naa dina am kuy seetaan ku ñëw ooyee fiit kool muy su muy góor di garmi di suma xarit di suma àndandoo te ñëpp gis nañ ma bi maa dem eh, bi maa dem eh, maa fiit kool la ànda te yaakaar naa junja na borom xel indi nga féerkool sax turam tam dina ci dina ci tëmba dinañ ci tëmbal turi turi féerkool ci biir wax nañ tam ne féerkool bokk na ci ñi la ngemba bokk na ci ñi la dal loo am pour wax ci loolu maanaam féet daal jàpp na si sa campagne bi bu baax jàpp na daal bokk na ci ñi la ngemba daal ci gàttal. fii dama yàgg ak moom te mu nekk nit ku baax nekk e concerned Gambien nekk e Banjulian tam as well ma yàgg ak moom dëkk ak moom Angleterre fii mu xam li ma mun xam li nga xamante ne mooy. Potensial si ma am ak yu mel nonu wax nabu ne yàlla nag bu óoluwutoon be jennam ko te eh, ku melni responsible person ku melni fit mu dem be gis man li ma mun pare ma jappale yakarna lolu lu mak la te suma jappale tam yakarna naa ayu ndax nit nekka fo nga fula la rek far wa kon kon kon bokana na si ndax bokkut si bokana na si ñi la ngémba ndax ah, bokkut si daa wax dal féet olu nama doylu nama te junja doy borom hel waaw fet suma nit la suma xarit la suma sista suma suma lepp la dal, wa jaaw dal bu gay bañ na mo ton ci wax joju ful mu leer waye dinañ la ko nangul be tax na rek muy waxe nag bu xew wala am na dat am na dat ma join mom mom xam su fi nekkoon dina la wa yes or no waaye Iva mom, man am na dat pushy respectal na la ko waaw kon su ko defee rek jaawo ñu gën ñu mu am na ñuy laam-laamee nga baral ma rek jaawo tuuti ma pull out images yooyu ko defé rek ma pull out images yoy noonu ñi wax né jaaw jamono ji ni mu ngi bëgg indi politique bu ES biir Gambia manam muy nasti politique ñeneen ni non lañ ko oyé xaw ma nak luñu min ci lolu waye xëj na yow ñu ci doon mëna dimbalé dimbale baalal ma rek su ko defé ma ah, génne da nga bëgg ma non non non that's fine that's fine lifin bi nataal bi rek lay gëné because ma ngi woon si benen page bi sa welcoming so dama ko indi tamit su ko defé ko gis ko help nga baral ma tuuti rek waaw mu ngi nii jot naa ko ok mm, askan bi li la ñuy jaawo gis nga update pictures maanaam gota yi banjul tilimam ni mel eh, maanaam daal ñu gisee ni ñu ne jaawo dafa jël beneen yoon bi nga xam ne nit ñi xamee wuñ ko ko maanaam daal dafa bugg a xejamal politique yi Gambie maanaam dafa ko bugg a eh, dafa nasti daal jaaw nu moo politique maanaam nu moo playé eh, campagne am nu daal setul dafa tilim ba tax na loolu nga wax ne loolu Iva jaawo dégguñ la break waaw da nga wax ne suma gaay nataal yi nga wone mooy suma gaay biñ génnee dem di bale dëkk bi loolu nga wax ne nasti politics la ñoom la du man ah, ah, dañ ko for rek ci ci ci ci ci weyi ci weyi nit sax lañ ko for du weyi ñu wone ne lu ay images bad images about Banjul xel ci gan lana waral li lu tax images Banjul dem Gambia dara lu baax ñuy wone di other side of Banjul xam nga xam nga Iba bu Iba fi lu def di wax lu ay jàmbat ñun wuñ fi dara lu ees li ñoo wone bu fekkoon nañ ko fabriquer nga ne dañ ko fabriquer waaye li xew Banjul la and it's reality iva man mi Banjul laa dëkka bu ma demee Banjul laay fanaan Banjul laa dëkka iva mbalit mi ñun la soonal gise di ñun la soonal xet gi ñun la soonal kon su fekkente ne Banjul tilim na honorable Kande ànd ak waa GDC génna waa dekkali Banjul fekkale leen te taxawal Banjul dem képp koo xamante ni dëkk nga Banjul nga dem nga gis nii dëgg la mu ngi si website yi Dekkali Banjul mu ngi si suñ pages yi waaye si equally mu si pages yeneen political ah, platforms itam ñoom ñëpp génn nañ pour wane li nga xamante ne seen nit ñi nga xamante ne génn nañ keroog pour bare Banjul raxas Banjul su nekku ne Dekkali Banjul ñoo ko wane te soo Dekkali Banjul wane sax war nañ ko wane tam ndax lii mooy li nga xamante ne mooy di reality mooy li nga xamante ne moo xew ci jamono ji iva ndax Banjul tilim na Banjul ñun suñ suñ canal system bi ay it's clogged up soo xoolee sewage system bi mu ngi blocked a uh, pharmacie doxatut iva pax yaa ngi fata yoo yaa ngi bari iva jisit yaa ngi génn Banjul la ngi am xeet gu bon ak yeneen ak yeneen ñoo xamante ne mu ngi ci su amul dara loo xamante ne moom lañ génnee loo xamante ne lu ñaaw la iva man ku ma xam xam ne man du maa du lu ñaaw man du def lu ñaaw iva man foog naa ne si Gambien si nga xamante ne am very very proud of my history am very very proud of being Gambien da ma wane the positive side of our history Why, itam su politics jotee li nga xamante ne li nga xamante ne mooy reality of the day te nit ñi war koo gis ndax Iba yow tey xëy na ngi toog fii bugg dem Banjul demuloo Banjul kenn na ngi bugg dem Banjul demul Banjul am na ñoo xam nañ Banjul ay ati ati at dégg lañ ci am Banjul nii la mel waaye tey the world is a global village Iba tey yaa ngi toog xëy na ngi nekk Brighton maa ngi toog nekk Nottingham waaye ñu ngi mën gisante kon luy ndey ne li nga xamante ne xew on the ground di reality on the ground buñ ko wane kon loolu lan la loolu di nuru Iba amu dara lo xamante ne moom lañ moom lañ def lu nekk fabriqué yaakaar naa Ya, lerna na jaawo si kanam tuuti dinañ ko riir comme askan bi tamit ci lañu bokk dinañ recommend si ba tax GDC seni ay members yang ci bir waye comme li wax askan bi rek yar ak teggin mom lañuy app mom lañuy ñaan sék bu fekke dinañ ko mëna am dina neex bu ñu faté né Banjul ñoko mom té man defuma dara suma liggéey lay def digante laaj ak tontu té jawo yaakaar na né moñu ci si sut ci métier bi ba tax rek dinañ rafetlu comment ci buñ ko mëne def ci yar ak teggin ak discipline ñu kenn buñu kenn saga ngir lan Banjul ñoko mom té te Gambia mom ñu dem rek read comment si fu fekke né amna képp ko xamante rek jotaay bi neexu la mun nga quietly log out because forcé wuñ kenn pour mu ñëw seetaan forcé wuñ kenn mu dugga si bu mbir mi rajee bu la neexee mun ngaa def li ngay def bu la neexee attaqué ñu lu la neex def ko bu gëntanaane di nga fa yàgg te doo jot tontu ah, kon rek ñu dem ak ñi nga xamante ni mooy comment si jaawo ki mu ne turam bi nag moom la ma baalal moom ma ko pronounce Wendone Kennedy mu Jumbo Amazing Jawo loolu Babili Mansa moom tamen bokk na mu ne Jawo what makes you the most qualified candidate for the Banjul City mayoral seat how did you intend to address or improve the inner city transportation community system drainage system and road Lol, yaa ngi ko doon wax Babili Mansa about the drainage eh, transportation bi eh, community system bi eh, am na mo wa loolu la infrastructural conditions la as well Iba Iba man yaakaar man ma ma njëkkee ci man ma gën qualify yen candidate yi maa ngi jégalu dudara dina du dara Iba Angleterre la deka for for the past sixteen years to seventeen years Iba ah, ma fi am fi ay lijaasa yu foor am fi a degree in social work HND in ah, acting and directing ma amee masters in youth and community development kon Iva soo ko xoolee gisaguma benn candidate boo xamante ne génne na lijaasa yu wane yu war tollu ak man li ma génnee so nit ñi nag suñ la xamul moom xam nga te xam la démba rek xam ne Iva xëy na ndaw la bu newoon dem school xamuñ euh, tey teyam waaye tey ñëpp gis nañ ne Iva bi mu ñëwee laxasu na jàng na graduate na ñëpp gis nañ ko ci internet bi jaawo noonu la jàngee ba yéey kay toog nag ne pat xam nga Iva geres gu ndaw gi nekk ci bay ba tax koo jóg muy mbeleleli fajar bu ko ëppaan si ñay te mu ngi ne tekk <laughs> Jawo mi ran tiyatal timba they are two different jawas it's important for nit you ñuy distinguish lolo di xam loolu Ivan ma liggéey ci city council bi for the past 16 years nekk a senior housing officer i am also a magistrate since 2012 maa ngi nekk maa ngi bench in Nottingham as a magistrate Consumer su ma jàngatoon aw ma fi ndombo tànka yu foor somebody with uh, with an unrefutable uh, with a reputable and exemplary character yaakaar naa duñ ma doon appoint ma nekk magistrate iva man du ma wax lu bon du ma def lu bon du ma saaga nit du ma xas nit iva man ku ma mag benn fan sax jox naa la cër xale xale bu ma bokkee xale sax maa ngi jé kool buy duga euh, su ma xaleel sax laa la wax xale bu ndaw sax ku nekk dama laa jox cër ba mu sek man bëgguma fitna bëgguma luy ekkati fitna iva si wa li tax ma yaakaar ne man mi iva su ndaw yi buñ ma óoluwutoon duñ ñëw approche ma 16 years maa ngi liggéey ci council xam council Leicester is the sixth biggest city council in the whole of UK boo xoolee Leicester mun na moo na Banjul fo naa boori 20 something times Iba in terms of population in terms of uh, resources ak and ak yeneen nga nekk ci loolu ba am foofu ndombo tànk bu mak bu fort Iba doxal foofu noonu ñaata at nga am a team manage Yakarna Iba loolu ak doxal Banjul City Council dafa mel ni yomu waaxu ci yomu waaxu ci géej gi tànga fa kaasi ndox ak la géej ga nam toolu gis xaw ma ndax understand nga li maa wax li ma bëgg a wax daal mooy Banjul City Council doxal ko jëluma dara Iva in terms of soo xoolee li ma doon doxal in in uh, in in Leicester City Council ba bi Iva loolu yaakaar naa moo sut fuuf Banjul City Council ci wàlli jànga ci wàlli expérience ak yeneen ak yeneen Uh, Ivan liggéey comme in housing am um, an experience in in community development janga loolu youth empowerment ma def loolu tam at university def uh, management def na module ci mel noonu def uh, law ak yi module ci mel noonu yëpp def naa ko Ivan am ci ay ham ham. te kon nag gisaguma kenn ci candidate yi taxaw koo xamante ne am na li jaasagu war a toll nii du fukk dina du dara waaye waxtu wax bu jotee rek nañ ko wax rek Ivan du ndamu du dara ma liggéey council comme li ma at ak juroom Europe te ñëpp xam nañ ne fii bu fekkee nit ku ñuul nga loo doonuloo juddoowuloo ci réew mi iba nga am der bu ñuul mu lalu sa kaw der iba te bu fekkente ne am na xam-xam yoo xam ne amuloo ko wala liggéey yoo xam ne mënuloo ko duñ jël place di la ko jox ba di la fa jiital nga jiite fa ay nit ñoo xamante ne doomi réew mi lañ ak yeneen ak yeneen kon su fekkee experience la in terms of managing wala running a council yaakaar naa am naa ci experience su sori sori sori iva comme li ma laa wax social housing, the housing nit ñi nga xamante ne with homelessness based on uh, section 188 of the homeless act Again and again, yeneen yoo xamante ne def naa ci ay training yu baree baree bari li ma bëgg a indi Iva leer na Iva 10 to 12 plus yoo xamante ne am naa ko ma somabal la ko rek ma somabal ko Babali man sa Iva su uh, dinaa ñëw ci mbiri drainage bi bëgg def Banjul bëgg na gis ne am nañ social housing Banjul City Council is one of the very few councils yoo xamante ne su ma ebo ma ne ñu ngi in Africa sax te amuñ any form of social housing Iva tey ñi nga xamante ne ñoo nekk ci luyaas luyaas a ngi leen a rey tey jii Iva da ngaa toog nekk sa nekk sa luyaas eh, nekk Banjul borom kër tub ne dafa yokk a nekk ëllëg mënuloo ci dara amuloo fenn foo ko jooy amuloo fenn foo ko tawatee nga olbate kooti eh, mu toog jox la notice yi one week wala ne la génnal ëllëg baabal notice nga génna te dafa am lu ñoo ooyee the housing act dafa am loo xamante ne luwaa la bu yoon tëral nit tey waruloo mënuñ laa génnee ci kër te fekk joxuñ la lu ñoo ooyee two months written notice ñu ko ooyee section 21 benn ba pare bu fekkente ne notice boobu dem na ba expire borom kër gi dafa am pour dem court pour court rek moo la fa mun a génne tribunal moo la fa mun a génne am nañ ren tribunal wala boo waa ren tribunal boo xamante ne city council am nañ ko ñooñu rek ñoo la mën a génne nit mu a ñëw toog la ngaa génne ili nga faak sa bagage génn yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne ñu ngi am in Banjul and in other areas yoo xamante ne adresse suñ ko tey Banjul bu ñu amee social housing iba ndax tey Banjul soo xoolee su may boo ma ne sixty percent of our landscape rek lañ use leen forty percent bi yëpp maa ngi gëla ak ndox mi tey suñ demoon tey suñ munee bill foofu noonu di national ah, di assembly mun faa bill Tobacco Road ak yeneen ah, gox goxaan yu nekk ci biir Banjul iva wa muñ faa bill tey ay estate munuñoo am ay green park ci boobu noonu mënuñu am foofu noonu ay youth centres yoo xamante ne na nekk ah, training centres yoo xam ne nañ fa trainer ndaw yi Banjul xoolal di skill gaps yu ñu am in Banjul Iba tey jii ñu ngi dem di employ ay nit di jëli ay nit ci biti ñuy ñëw di ñu liggéeyal Iba bu fekkoon ne institutions yooyu including GTTI technical annex ñu ngi train youth si Banjul yi ñu am contract ak Banjul City Council ñi faa graduate di fa jógee Iba ñu jël leen employ leen in our technical side employ leen in our skill side employé leen in in the cleaning side ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon duñ toog di jigaani ñeneen unemployment dina wàññeeku biir Banjul benn ndaw yi nga xamante ne ñooy génn di dem ci Bagwe bi di des ci désert bi ak ci Méditerranée si bi loolu dina wàññeeku ñëpp nañ li nga xamante ne mooy xew Libye ak yeneen dëkk kon IVA yii bokk na ci projet si nga xamante ne bëgg naa koo def ndax nit ki nga jàngal ko ni nga xamante ne moom la moo nappee maanaam moo gën ngaa ko jox jën boobu set man ikati ma xaalis aleel bu ma jox nit de ikati ma xaalis waaye bu soobee yàlla incha allah bu ñëw jaawa dinaa gis ne youth they are empowered they are trained am nañ the necessary employable skills You are ne dinañ la mën to absorb in the job market iva ma ñëw ci wàllu jigéen ñi jigéen ñi mm-hmm. bugg naa gis ah, ne am nañ wala ngaa ñëw si jigéen ñi am na lu am solo li nga fi wax maanaam ci wàllum luwaas bi moom ak li nga xam ne homelessness ak luwaas yi nga xam ñu ko yokka kon loolu suñ la gisee ne yow bés boo nekkee eh, bés bu la ko yàlla mayee nga nekk mayor bi kon yow di nga def like cap di nga liggéey ak ñi nga xamante ne national assembly membership pour ngeen am loi boobu maanaam act boobu noonu in place su ko ngeen def e cap suñ la déggee ndig lu dama bëgg jotaay bi lépp lu fee génn kàddu mu nekk loo xam because it's on record mu nekk loo xamante ne maanaam eh, answers la ñoo am dañoo look forward to solution moom lañoo am moo tax ma bugga rek bëgg koo déggee ci yow maanaam bu ñu la daal di nga liggéey a ñi nga xam ne ñooy euh, national assembly members pour am li nga xam ne mooy ak boobu pour ñu def ka on rents isn't it daa bugga dama bugg a gis ne there is there is ba pare am nañ ay social housing even man loolu before maa nekk a meeyoo sax ndig Banjul yan laa dama am it am registered voter in Banjul te dinaa lobby man my own my own parliamentarian te yeneen parliamentarian si nekk Banjul all the other three parliamentarians bugga naa leen lobby gis ne gars yi nañ even before my nekk mayor that is my ambition te maa work on lolo, maa draft something te incha allah dinaa make sure ne lolo amna. na su fekkente ne mënut a am ba ma mayor dinaa ko te I think I am on record Iba leneen li nga xamante ne bugga ko gis mooy tali deku Iba yu Banjul transport system Iba tey Banjul amuñ mënuñoo am a night life tey Banjul buñ amee soxla war a war a génn pour dem pati Banjul rek mooy cité boo xam ne amuloo fa any club amuloo fa any any social events yu faa xew bu guddi jotee ni ñaa dem ay boori Sénégal mais ñu ngi ne am nañ tey ah, tey nga xool Banjul City Council youth centre bi Allen Street building dafa daanu dara nekku fa iva tey building boobu suñ ko biloon into multi purpose centre am foofu noonu youth centre and for a cultural center with with uh, with with uh, naka lañ with the, with a uh, with a hall with a function hall or a function room even events yi xew Banjul ñu leen ndax foofu is strategically strategically located nga am foofu swimming pool a gym am fa centre boo xamante ne mag yi nga xamante ne ñoo dëkk Banjul dem ba màgget nañ fa mun di ñëw def am ko foofu tii nga amal leen fa seen télé ñuy toog di waxtaan di xam-xam yi nga xamante ne moom lañ am di ko transfer into to the youth nga am foofu internet hubs yeneen na yeneen iva imagine loolu lan la moo indi économie bi moo indiwaat li Banjul iva ndax kii jaay mburu liba kii jaay mburu akara ak yeneen ak yeneen wala kii jaay drink sam kooku bugg di jotee war naa mun a toog ci boor boobu noonu bu fa Eden amee muy toog jaay waaye tey jii loolu bokk na ci li nga xamante ne rey na di économie in Banjul leneen li nga xamante ne mooy problème bi nga xamante ne moom lañ am Banjul te yaakaar naa feebar la biir Gambie yëpp waaye Banjul laa mun a waxagum fu mu nekk nii mooy di lack of reliable electricity supply Iba dama bugg a gis bugg naa gis renewable energy in Banjul li ma wax mooy mooy solar Iba ñun Gambia we are blessed with sunshine throughout the year bugg naa gis foofu renewable energy ba xamante ne solar panels yi Banjul from from uh, what's it called Denton Bridge ba State House 300 light fa nekk su ma ebo ma ne 99.9 yëpp 300 light uh, street poles moo fa nekk light poles ñoo fa nekk su ma ebo ma ne 99.9 hmm. yi yëpp dependent on NAWEC moo leen supply iba tey suñ amoon individual generators yurndul sa palanteer nga seet uh, lampi mbeere yi nekk sa bunti kër iba yooyu noonu yëpp ay solar individual solar units ñoo koo taal su ko yërë mu ne def te ñoom amuñ janta rawatina ñun ñi nga xamante ne am nañ janta iva wala nga am tey jii ay wind farms mooy wind turbines si iba ñu jël loolu noonu bil ko ndax def nañ feasibility study already te gis nañ ne is applicable in Banjul iba man gis nga coow li coow li coow li man li nit ñi coow coow ma ko man develop am development oriented man yii yëpp dañ def feasibility study sam ba pare li ma laa wax nii yëpp def nañ ci saaj bi already iba tey suñ amee wind farms loolu generate energy tey energy bi loolu di generate iba tey dina wàññi ah, problème yi courant yi nga xamante ne moom la council bi am council bi as I'm talking to you right now Iba ñu ngi ami bili thirty five million dollars mu ngi commencé si jamono passala ba fu ñu toog ni di wax moom lañ amel na week tey thirty five million dollars boobu noonu council bi fan lañ ko yaakaaree ci réet yi nga xamante ne moom la ñoo xoolee fan lañ ko yaakaaree pour fay ko te mënuñoo fay na week loolu Iba just on car parking you ngi receive nearly nine million dollars loolu ñoo receive par annum If kon da ngaa gis ne dañ am lu ñoo ooye misplaced priorities te su fekkente ne doxalin xamuloo ko wala doxaluloo ni nga xamante ne noonu nga war a doxalee bu yàggee da ngaa bugg di gas pax rek di gas pax iva tey jii Banjul ñu ngi am place bu ñoo sànni mbali mi fi ñoo tuur mbali bi it's been there for over forty years fa lañ nekk di sànni mbali iba tey place boobu noonu war nañu mun a générer énergie foofu noonu ba loolu soxlaay courant bi Banjul bi surplus of courant bi ñoo am foofu noonu surplus boobu noonu mun nañ ko offset jox ko nawek jaay ko nawek bu ko defee ni ñu ko jaawee nawek duñu du ñu fay xaalis bor biñ leen ameel ñu génnee ko ci loolu IBA xam nga dafa am loo xamante ni xel mooy naacca moo ko joxe IBA mbalit moomu tey suñ amee recycling plan foofu noonu IBA imaginal how many young people in Banjul la loolu mun a absorb jox leen employment IBA ñaata ndaw yi Banjul la loolu mun a jox tey employment seetal ñaata ndaw ñoo fa mun a génne tey bu ñu amee ay call centers in Banjul ñaata Banjul yéen youths ñoo fa mun a liggéey Iba man as as uh, su fekkee ne yàlla def na ma mayo bugguma gis councillors yi ñuy wax ñu toog ci eh, at the council chambers the am meetings te fekk amuñ any meeting uh, locally bugga naa gis ñuy am local surgeries in the in the individual wards you've got nine wards te bugga naa gis all the ward development committees ñu activate ko su ko defee ku nekk di dox ni nga xamante noonu nga war a daxee su fekkente ne you are from Kampama ward or Portuguese town wala Jolof town wala Tobacco ward wala Kampama ward or whatever ward su fekkee Thursdays la every week Thursdays di nga dem toog bu fee campament school nga toog sa consi sa uh, woot uh, wala sa constituency wala ni nga xamante ñoo dëkk sa woot uh, woot yi ñëw buñ amee problème school buñ amee problème mbalit ak yeneen ak yeneen ñëw foofu noonu su ko defee wax ak yow léegi yow loolu ngaa jël di ko filter di ko filter at management level at at chambers level waaye yii mooy ting si nga xamante ne manqué na Banjul Ibrahima ñëw ci wàlli mbalit yi mbalit mi na nañu biir Banjul tey suñ comme maa ngi la wax ni recycling tey suñ jëlee mbalit mi ñu xaaj mbalit mi nga am kër gu nekk joxe fa ñaari bin iba eh, su fekkee ne kër gu nekk joxe ne ñaari bin nga am bin boo xamante ne comme ni nga ko amee in Europe rek bin boo xamante ne xëy na bu yolo wala bu reer wala whatever color it is bii nekk recycling bele nekk general waste iba mbalit mi ñu xaaj ko ci kër gi lu jiitu muy dem fa nga xamante ne fa lañ ko MT iba Europe dañoo ulbati ko di jënda mbalit dem naa benn Sweden dem naa seen recycling plant yi dem naa Denmark dem naa visite seen recycling plant gis naa ni nga xamante ne noonu la ñu wax xaajee mbalit France dem naa fa gis naa the same experience toog naa waxtaan ak ay expertise on these things te Iba it's doable te am na nu ñoo demee Iba mbalit moom nañu nekkal koom-koom dina nekk aleel Suède dañoo génn tey di génn di jëndi mbalit te ñun Angleterre fii suñ mbalit mi ñu ngi ko jaay ñu ngi ko jaay Taiwan mbalit mi xamante ne wees jógee Angleterre fii ñu ngi ko jaay tanu Taiwan loolu tey revenu la pour dëkk bi so yii mooy things yi nga xamante ne bugga naa koo gis Iva nga ñëw ci wàllu économie dëkk bi Iva tey ñun Banjul amul ay shopping mall. bara ñoo ñëw ci économie dëkk bi ndig mbiri tilim Banjul bi ngaa génne nii ñu ne woon jaawo de ko woon before bu toogee nekk politicien la ko indi moo taxoon mu jur coow waaye yow ñi fa jaar yëpp ñi ngaa wax ne maire yi jaar nii Banjul yëpp buñ doon toog lii lañ wax askan bi maanaam seeni kàddu taxoon na askan bi óolu leen ci yow it nga ñëw bu sa nga beesalaat ko ci ni mu mel gën koo yaatal ban promise nga mën a jox Gambien ne yow Banjul over two hundred years old ban promise nga mën a jox askan bi ne yow jaawo mun ngaa change loolu eh, amoon ñi fa jaar ñëpp yow jaawo ban garanti nga am pour mun a change li nga wax ne yëpp bi ma mooy ne Iva man amee di man duma politicien man amee development worker amee social activist Iva mm. man nekkuma politicien dama bëgg nit ñi ràññaale loolu jaaw mi toog di wax man du ma de defuma benn promise boo xamante ne politicien defoon na ko démb ak bolka démb man maa ngi wax mbalit mi naka lañ ko def defee Iba nit ñi lañ la doon wax ne dinaa bale pax yi dinaa pompe yooyu dinaa gor maa ngi dinaa def nangam Iba man waxi kayang kayang de li ma woo waxi nit wér la li ma laa wax wax naa la stratégie si ñoo waay naka la ñoo def mbalit moomu tey Iba su ko jëlee nga def foofu noonu am na chemicals yoo xamante ne I have had meetings here mbalit moomu dañ fa def ay chemicals ba nga xamante ne gaz bi fa bi faa jógee lii évaporer foofu noonu dañ koo capture def ko ci air conditioners yu màgget yi defare ko firij yu yaaxu yi Iba li ma laa wax man dama la wax leer na lu ci nekk naka lañ ko defee ak fan la xaalisam war a jógee leeral la naa la lu ci bari te Iba nag euh, ñu ne euh, naka lañ ko wax bugguma bugguma nekk xam ni inti li nga xamante ne moom laa bëgg a wax dama wax saa yi ne Banjul amuñ intellectual property right te candidate yi ma gis fii yëpp ki laa jox ak li ma laa indi tegal ko muy lu lu leer kenn mënu la fay jox stratégie wala politique su leeree ni ma la ko waxee nii Iba lenn lu ma la wax ni lii dama ko def Banjul dinaa la naa laa jox naka laa koo defee man maa ngi am website ab gode website benn bu ci nekka tomba bu ci nekka nu ma koo defee ni fa xaalis di jógee ak naka la moo def ak duration bi moo jël loolu yëpp maa ngi ko outline foofu noonu ku dem www Ibrahima Jawo dot uh, dot uh, o oh, di nga ko gis uh, yaakaar naa lii loolu dina wone my manifesto dina won my plans in Banjul ak la nga xamante ne moom laa bëgg a def biir Banjul yëpp Iba ci wàlli mbali mi yaakaar naa maa ngi ci doon ñëw am na ku laajte kon suñu la dégg yow you are a development officer kon yow maanaam sa professionalism moom nga bëgg a jël pour développer Banjul ma jànga man Iba dama am lii in ma at master's level ah. Iba man jàngi moom laa wax ne sa professional uh, sa waaw demal sa professional career. moom nga bëgg a jël maanaam daal pour développer Banjul suñu la déggee ah Iba bu fekkee ne ground is level bu fekkee ne nañ ma di support Banjul billahi ib pour na yàlla maa ngi laa waatal lii ne dinaa ulbati Banjul ceeñ ko ba ñëpp naan buñ yëgoon ñu gaaw a def lii Iba yaakaar naa I would be one of the youngest people ñoo xamante ne mus nañoo ever run for this political office in Banjul te buñ ma joxee di opportunity Iba ndax ñi ñoo ma mag man maa ci gën a nekk ndaw te kenn ku ci nekk jox naa la sa wàccuwaay jox naa la cër bu mut sek ñoom ñëpp maa ngi leen a jox cër wax dëggaan yàlla xamaluma leen dara amaluma leen anything Why su political debate jotee on a political platform dinañ toog ñu tosu lay out ku ci nekk nag lay out sa stratégie waaye man li maa wax lu leer la dama liggéey in Europe liggéey in a council ba pare soo ma bàyyi xel Iva gis nga ma tukki Europe dem ci place yu bari dem jàngee ji xool ni nga xam ne moom la ñoo defee mbalit ni ñu liggéeyee seen kër yi ni nga xamante ni moom la ñoo réservé ba ñu ak yeneen ak yeneen lii moom a yóbbu ma dem tukki Europe ba pare mit waa Banjuli and generally other Gambians pour won nit ñi ne man dama utee ak ñeneen ñi xam nga ñooñu ñu nga toog ñu nga toog Banjul di xëccoo vote di campagne man su ma eggee yëpp dina leer diina ko dégg jaaba mu ne su eggee yëpp dina leer moom moo ko waxal boppam be tax nag jaay na fi boppam bu baax but he's on record incha allahu rabi su fekkee moo gën pour Banjul rek ñu ngi laa dégg ba tax nag sa words moom la gars yi di sukkandikoo di pour mun laa jox seeni ay karta kon ñu move on rek jaawo ñu dem ba tax nag comment si mu doon dem baabi li man sax comment bi foog naa ne tonton bi leer na dinañ read euh, ñi nga xam ne am nañ because mu ngay dem while the video is rolling mu ngay tamit euh, beneen bi tamit jaawo beneen question boo xam ne am nañ ko gis nañ la tamit nga def too jaawo European tour loo xam ne kenn mësu koo def maanaam moom nga def dem si Europe bi gis nañ la nga dem Sweden gis nañ la nga dem Denmark France lana waral nu mu jaawo yaakaar naa tontu loolu si laaj bu mujjee bi Iva dama demoon ndax dañ dee wax ne ñu ne mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokka te mm. ñun ñu nekk in diaspora we have a say in our local soo xoolee last presidential and parliamentary elections bi dina la uur ne waa diaspora bi dañ am cër bu mag boo xamante ne war nañ ko play mun ño ñàkk karta buñ voté naam waaye am nañ kàddu si seen kilifa yi ak seen waajur yi ak seen mbokk yi xarit yi am di jaama yi nga xamante ne ñu ngi dëkk biir Gambie ak li ko wóor Iva lii moo tax ma jóg sol suma daala leneen li tax ma jóg sol suma daala pour dem ndax man maa ngi laa wax ne 16 years liggéey naa ko fii bu Angleterre xam naa nu moo demee waaye xaw ma Sweden ñoo doxalee seen wàlli mbalit ak yeneen ak yeneen xaw ma naka leen ni ñoo defee Euh, ni ñoo euh, ni ñoo reetee seen xaaw seen politique yeeg yu mel noonu dem naa pour jàngee ji lii ba pare mitaali nit ñi saafu wante ak nit ñi won leen suma boppa ndege maa ngi nekk candidat yi buy jógee ci diaspora bi pour wun nit ñi li nga xamante ne mooy suma éene ba pare taalal leen loxo saako seen seen jàppale ci wàll ci wàll boobu noonu su ko defee ñu canvas wax ak seen mbokk yeeg seen xarit yeeg am di jaama yi ba soo ko xoolee daal ci gàttal tout foofu moo tax man benn pour jàngee ji am first hand information and knowledge of naka la yeneen things yoo xamante ne mu ngi xew in other countries in Europe ma ah, pour saafu wante ak nit ñi nit ñi nga lañ ak Gambians in general pour ah, pour won leen li nga xamante ne moom laa bëgg a def waaw Jawo dafa mel ni am ku bëgg a yow ci hello hello waaw dugut mu ngee loog ba tey mun na moo kolaat ba kooku di kool jaawo la a waxal am na lu ko bugg a laaj eh, ba tax nag rek su jowee dinañ ko paas jaawo mu wax moom waa jaawo ñu bi nga defee sa too bi ñu gis nag magi Banjul yu bari jox la gan jox la kanam maanaam ñu bari daw si ñëw jox la seeni support jaawo sa diggante ak ñooñu naka la fa demee di gis nañ nataal yi gis nañ vidéo si tamit mu ngee daw gis nañ bari ñëw jox la seen support ah, liñ de ñu ne xale bu setee loxo mun a bokka ak mag ndab yow man kër gi ma jógee ak ah, ku ma xam-xam ne respect laa am pour ñëpp comme li ma wax ah, man ku ma magee benn fan sax jox naa la cër su la magee man nii jox naa la cër tu ah, vois loolu moo tax yaakaar naa mag ñi ak yaakaar gi nga xamante ne am nañ ko ci man te ñu baree bari yaaga nekk suma soppe di ma follow bu baax a baax a baax tu vois yaakaar naa bu ma catu suma boppa amee ndaw yi tam yaakaar la ndax sa yar ak sa tegin yaakaar naa loolu lu mag la waaw mun nga def am nga kola bi kola bi dugg na jaaw hello alhamdulillah mang la Mm-hmm. Um, right now compete why can go on? Which in the first place is, is, is wrong. Why is a new game. new Gambia, what I to of Why only one found him when the Banjo, one of the mm-hmm. Jao Henya is high time to upcall him. Couldn't get to what I own Because of diaspora we are not uh, a to Gambia. We are one of the people who are foreign investors. So foreign investors, they could not During, this, during the diaspora, we are part of that category. We are going to Gambia to mm -hmm. so, mm -hmm. buy another at least I'm rather than buy. Kuliliva, Lulukunako But moreover, it's also a profile and historical profile of Jawa in Gambia and abroad yep, the quality program ta hau political sector why the problem point ne league manual is not about who got the job or who get the qualification it's about yana high na mun mai futar makaranta mota ta yi babban da hudu why fogu mane na jawo ni jawo wani ko bai hada mai ne ko he amun high school jawo ba ni sun why analim am si ak ay taxaw fu soo toogee one two na ko defal bul bàyyi bul capital foog naa lii dafa important am ñu wax jaa ngi bëri nag everything is going up and down mu nekk ak wax la nii waaye nañ bàyyi taw ñu jóg pour seen bopp ñu xam ne dëkk bi ñu dem nañ koo amee because of Gambia ten years ago wax ne xale tey ñooy ñooy magi ëllëg ñooy amee réew mi léegi su xale yi su xale yi tey bay magi tey bu ko jóg réew laa tax mag ñi duñu koo xañ lan moo seen din ajat na daa seen din añ na koo xam ne mu su ñëw ci jaw lum na ma bañ mu lum na ma àngal te lu mënta am ni laa tax kuy moo su jaawu sax laa tax why can Gambians give an opportunity to these young talented Gambians to showcase themselves look at France their president you know so may, may, may give a chance to the young people Yet with Amit Hamham, that we have a step in national development and we have the opportunity and we have the grace. Let us go and prove ourselves. Gambians never Gambia. Then you may then understand you know, where we're coming from. Then you may change. You them you make a difference in the Gambia. Jawal Mawlis, what a no Problem. Then Them not hey, yeah, yeah, one. So what a day, you make them Jawal happen. So it, it's there. So you're getting the same program. It's very good. They've done a good job. li nga def nii pour enlighten Gambian people pour nga ko ah. Euh, Iba doole si rek. Euh, Iba man position taxumaa dem prestige taxumaa dem salary taxumaa dem. Iba maa laa wax ne yow xam nga pay bi xam nga the rate that people get paid. Iba hmm. bëgguma ko wax waaye I earn over thirty grand per annum. ma war fe teg loolu pour dem Banjul nga xam ne Banjul moo ma ñor li ma la wax rek ne kër bu kees daw na waaye fa la suma moo gën suñu indi sens ne ñun waa Banjul lañ Banjul lañ juddoo fa lañ dëkka fa lañ xam loolu lañ am tey war nañu mun a dem Banjul ñun ñoo puus nit iva wax leen ne nañ oote ceeñ nañ jóg ñu ceeñ dëkka bi ut e ñu Gambia tey mënuñoo puus nit ñi bañ toll ci loolu Iba ñu won leen gannaaw yaakaar naa ne suñ ko defee history will judge all of us rawatina di educated Gambian elites ñëpp mënuñoo dem nag ba pare comme li koola boobu wax investors it's not only about uh, the the westerners waaye Gambien si nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi because dang dee am direct foreign foreign investment Gambien si war nañu ñëw invest in the Gambia ba pare maa pour ñu invest in Banjul because it's our capital city ñu gis ne revive nañ ko Iva yaakaar naa ñun ñi nga xamante ne ñooy Gambien si ñi mun a dem te war a dem pour liggéey dëkk bi war nañoo dem Iva tey soo xoolee Europe jiney sampuñ ko ay doomi Europe ñoo ko sampa nit ñi ñoo ko sampa kon ñun tam Banjul séentuwuñ jinne yi sampal ñu ko ñun waa Banjul ñoo ko sampa defar ko it's two hundred years old suñ maam yi dañ fa dëkk juddoo fa yaroo fa keroog bañ sañcee Banjul in 1816 la suñ maam yi takk seen bagage yi ñëw ñun ñëpp ba léegi ñun ñëpp ñu suufa suñu jumbax yi suñ jumbax yi maam yi kon kenn ku ci nekk tey Banjul bu taaloon nga guux sa pour ci ndox dem sotti ko si kon we all have a role and responsibility pour gis ne Banjul retain nañ ko yóbbu nañ ko to an other level boo xamante nañ ko jox suñ suñ ak gannaaw ci tax may loxo wax ne jox ma ko. waaw dénkaleen ma Banjul ma defar leen ko mooy kaddu ki nga xamante ne mooy eh, Ibrahima candidate GDC leer na eh, Baboucarr Balde mu ne eh, Rohilo is our choice non moo Jawo waaye gis-gis la te xam naa ne Jawo xam na métier bi bu baax ba tax nag du ko jël personnel noonu la gis-gis na Tita Coldwater uh, Mune, welcome to Politics of Agenda and Substance. Mom wa Sadihulai Nyang, how can I call Eva? Sadihulai, Munga call messenger, Munga call some messenger, we then Dugal. But Samba Mune Jawa is an emphasizing on slogans to run for mayor bot programs. Uh, Mom lawa, Bak Samba, Samba we need politics of substance, not slogans. Thank you, Jawa. Babylon Mune, don't vote for someone based on agenda, race, religion, or affiliation. Vote for quality and substance. Based on what I heard, Jawa is the man that yai competing, <laughs> always eating or little tax money. While in the politics has to end. Eh, ki nga xamante ni mooy yero yero sa yero saabali mu ne actually baj samba eh, ba tey nag moom cool water mu ne am too excited welcome aji fanta moom itamit mu ne paos babili mansa mu ne thank you baj samba that's the point forgive us for salary doesn't qualify anyone to be our mayor so loolu la wax eh, mu ne credentials and a are the defining factors awa bay yaayi baay mu ne dëgg bu wér eh, Fatou Benga mu ne Eva ask Jawo all the question needs to know he will answer all absolutely man gisuma kenn ku nga xam ne dina ma down pour duma laaj Jawo xam ne moom la askan bi di di disiki sake I am well na xamoon naa ne lii dina am na ku ci nekk rek la la neex wax ko freedom la ah. ñu demaati mooy aji Jawo Jawo lo mang, man man laati kadi wawi homi dafa freeze deh? baral ma laaj dum ngey break ah Mang lagi nggak ada, dafa freeze de even sa picture bi dafa freeze te gisatuma suma bopa mbaadu si yow hello iva on let me just uh waa jaawa bu fekkee mun ngaa génn nga dugaati dinañu because man maa okay. On my end to be honest ma ringa connect rek comment si Hmm? waa mun ngaa log out nga ñëwaat in place Ah, mbokk yi ñu ngi jégal bu baax a baax a baax technical issue la is beyond control ba tax nag jaawo moo ñëw te waxtaan ak na ci am nag ko indi moom dinañ ko indi suñu beneen ni jotaay ba tax ko wax la lépp ci yar ak tegin ak discipline rek la ñuy euh, tax na moo tax mënuñoo indi nee na bu bari la ñuy daw tax na jaawo tam bu gën a ñu dégg ci moom lu baree baree baree bari moo tax rek ñu jël gàttal ko indi ki nga xam ne mooy jaawo euh, buñ indee nee na ci am tamit bu fekkee ne na suñu diggante ak yi nga xamante ne mooy aji roxilu moom ko fekkee di dinañu ko nangul wala nee na it dinañu ko nangul su ko defee ngeen dégg ci ñoom kon ñu ngi commencé laata lulu duga Pa mu doon duga xam naa tax loolu interop awa ba mu ne dégg bu wér Fatou Menga rido naa Lamine Dike mu ne this is what we expect in a politician moom la muy wax ma Jawo winga ba eh, lulu loolu aji wax eh, Sadikulaay Ñang mu ne Banjul Banjul yo ya. o oh, o oh, Jawo bring back Banjul to standard and mune mu ne by the grace of God you will be the mayor 2018 sa fans yaay wax noonu Jawo Ibrahim Afai the future belongs to the youths. Now we need to change the move. Gambia for Jawa is the choice. Abdullah so we are the third of square pages in round holes. Jawa is qualified. Njete Samon Def, our We need uh, and educated people to run our country. No more half baked potatoes. Dead. Dead. Go ahead. Eh, Adam Touré Danfa wi nit waa moom loolu la doon wa educated individuals like Jawo kon nag comments yaa ngi ñëw Jawo ba tax nag dinañu xala interrupt tuuti waaye si lañ bokka gannaaw ñu ñëw waxoon ne ku am question rek nañu ko pass on ñu laaj la wax nga sa diggante ak ñi nga xam ne mooy Europe Pa Ousmane dugga si woon na ni génn na wax nga sa diggante ak Papa Ousmane. waaw Iba maa fi Papa Ousmane dama fay caméra bi Iba maa fi naka ngeen def. alhamdulilah. tey dalal jàmm koy jamono mr jaw mang la nuyu dalal yow iya, ah, bu baax dila la seet naka nga def sant yàlla bari di beg rek pour join len ci programme bi yaag ak iwa naa yena yéen def bu baax mang don follow tuuti rek léegi wa iwa nga continuer rek gannaaw bi man nuyu wante képp ki nga xam mo ñoo déglu wala di ñu sétane ci jamono ji New continue like while I set up a few things. ok uh, waa Jawo ñu continuer rek uh, laataa Papa Ousmane di set up boppam um, ñu gis nag nga dem comme uh, ni ko waxee Europe coow Sweden bi ne kur nag ñu gis nga dem si Neneh Cham sa diggante ak Neneh Cham xam naa askan bi yëpp loolu la ñuy toog di xaar ah Neneh nag mënuñ koo indi waroon na mo ñëw waaye comme nag man sa jotaay jotaay nene Neneh moom wax dëgg neex yàlla moom dinañ ko indi hopefully next week inshallah allahu rabi moom tamit sa diggante ak Neneh Cham ay mbokka ngeen ndax ay dox dajee ngeen si internet si si Facebook Eh, iva uh, eh, man wa Banjul la Banjul la judo fa la suma waajur yëpp jógee uh, ma nak. Banjul uh, eh, laal ci ñetti hi Banjul nak uh, suma pa ay man suma pa ñun dañ suma pa dafa teel a gaañu ñun suñ pa dafa so yaakaar na bi mo gañu man ma ngi nekk xale suma rakka ñu ne mu ngee nampa uh, motax pa bi ñun xamuñ ko bu baax ay am di jaamam mak ay nitam ak yoy rek lañ xam waye suma woon ñu ne yaayi ne di jawe ci am suñu bàjjen la njëkkee la woon ci suma yaay ndax suma pa bi moo dem school yaakaar naa ah, dafa yaay ne daf ko téye woon ci amiñ moom mu téye ko jigéen comme ngeen dëkk Banjul yaroo benn gox ak yu mel noonu xam nga yooyu yàgg na Gambia ah, bàjjen jawre rek laay wax te moom muy génn àddina man bàjjen jawre lay wax ma dëkk jëm Sénégal jege ñoom nee ne torop dëkk jëm Sénégal ah, te Game Sénégal fi ma dëkkoon ak ñoom nee ne yaakaar naa ay fiw kër moo dox suñu diggante ah, ma time boobu maa ngi liggéey ci maa ngi si rajo bi yaakaar naa ma jógee fa dem Trosba yëpp su weer deeyaan li ma daan def ah, dinaa yóbbul suma yaay alawaan sama saako maalom ak yu mel noonu ah, ma saxal tam aji jawre ndegem suma papa nekku fa saxal ko lu mel noonu xam nga du lu nekk ngaa wax naka lañ ko wax Iba taraanga googu ak kóllare googu moo nekk suma diggante ak neene ak yaay nene ci bopam ak seen yep euh yëpp euh mu nek jigen ju bax suma mbokki papa Isa buñ joge wan ci dex ga ñew ñom ñu bare bare bare kër jawre la daj ci ñoo dal ya nga understand taranga gugu, ak lolu mo nek suñ digande nene bu xuloo wan sa ak sen wakir eh, ya yaa daa ñëw toog kër suma wacce mu ne ma duma dem duma dem ya ma yobu nangam duma dem duma delu ma dem ñaan aji aji jawre nan bajen jawre ñaan ñaan ñaan ñaan ba ndeysaan diggante bi li ñu lifin eh, mu nekk mbiri family understand nga kon Europe boolewu ma Neneh Cham eh, Facebook boolewu ma Neneh Cham ñu ñëw ci li boole ci seen wàlli dafa am suma maam bu ñoo ooy bu ñoo ooyee eh, man Moussa Koli buuri bondaale bi moo Sadio Koli naka lañ ko ooyee oui <laughs> balale ma yow ka ndeye baay <laughs> Moussa la nga am euh, Mary Koli Mary Koli Moussa Koli ak Sadio Koli léegi euh, ñu jël Mary Koli yóbbu ko caamen mu sëyi fa Banjul kooku am fa ñaari doom ñuy leen a ooyee Xadi Caam ak Yaasukay Caam ñooñu ñu jël yóbbu njaageen fa nga xam ne fa la maami fa la maami nee na caam jógee sense mm-hmm. ñooñoo jur ñi sax tey kon am naa cër nee na suma eboo apart from suma papa liyam suma cousin la tey ci wàlla woowu su ñëwee ci wàlli méricoli njaageen ak caameen am I making sense li ma nekk Europe nag musuma seeti nee na kuy wax waxalal yàlla dama at bu jot dinaa dem gàmmo Suède suma suma koole pour invite ma suma koole invite ma kiram dafa fekk benn maa ngi busy wala maa ngi war a ñibsi ak yooyu su yëgee ne maa ngi Sweden fu mu bundi dal dina ma lijanti man ñaareel su ma demee Sweden kër kooka njaay laa dee dal ndax su ma su ma rakal moom moo jabaram yëpp suma cousin la ñoom ñaar ñëpp dama bokk ak ñoom yaa ngi understand jabarama bokk benn kër maam uh, Ibu Njaay tam di suma cousin mu jógee number eight uh, number uh, eight naka ko wax number nine dentin man ma jógee number so number seven dentin man ma jógee number nine number eight dentin so Euh, da nga gis ne loolu nekk ñun ñëpp suñu diggante man su ma demee foofu laa dee daal nee ne fu mu yëg ne maa ngi fa dina ekkati téléphone call ma seet ma ne ma waroon ngaa ñëw waaye bés bi ma invite kiram daf dee fekk a busy léegi nag ma nekk ci wàllu politique bi dégg nga ma wax fi affaire yi waste management ak yeneen ak yeneen yëpp hmm. Aliou jëkkëram euh, suñu waxtaan wax dëkk wax wax lu tax nga dem studio demuloo fenn rek nga dem si ñoom neene lan la waral sa trip si kër ñoom neene lu waral visite bi ñi naan eh, da nga dem use nene pour mu nekk sa mouthpiece maanaam pour mu atta la sa gars yi daal ñi nga seexul été politique bi rawatina ki nga xam ne mooy rooxeeroy mun naa laa waatal ci barke yow nata nga nene ba xam ban façon nit la ne nene moom dabul coow moom nee na si boppam loolu nga use loolu noonu as an advantage nga dem na pour mu xeexal la sa diggante ak say ñooñ hmm? iva dañ de ñu làmmiñ buy wax bu wérut noppa ba koo déglu na wér ba tudda nga léegi dëkk yi ma dem Europe yëpp hmm. tudda nga dëkk yi ma dem Europe yëpp ñaata kër Gambians wala ñaata kër Banjul laa bisit biir Stockholm rek laa la wax dem naa fa boori eight kër boo ko wuta suma kër sister in Helsingborg which is closer to Denmark am I making sense kër nee na caa hmm. moo mujjee ci kër yi ma dem yaa ngi dégg man dem naa boori eight kër te wax naa la léegi ne kër Kuka Njaay laa dal ma der kër Papa Sagnang dem naa kër ah, Seet Mbay kër ñu baree baree bari ñoo xam ne mënumaa lim ñëpp sax kër nee na caam understand kon su fekkente ne use nit la konoon xanaa ñeneen ñi génn def ay live Facebook pour attaque suma su suma suma suma opponent si du ma leen ooye opponent sax suma collègue si in the political field ku nekk ak noo mu ne ñooñu na mu ne live nee na nag ku nekk xam na na live nee na rek moo tax may la nee na ah, jox fàttal ne tooñ la li ma yóbbu kër nee ne loolu laa la doon wax man Stockholm ah. laa nekk nee ne outside la dëkkoon te man bi maa dem maa ngi fly to Copenhagen because suma sista mu ngi dëkka Helsingborg man fa suma famille génwaali yi dëkka ñun Christmas bu jot fa daan génnaw Christmas yi ëpp si Christmas yëpp maa suma jabar xale yi ñun ñëpp Christmas fa ko dee defee jee yaa ngi understand ma jógee Helsingborg wala dem Stockholm am fa ñaari meeting yu ma am pour li laa a a xawma ndax yang ngi yaa ngi maa dégg de Yang ngi maa dégg ñu ngi laa dégg man maa war dem ma dem visiti wow ma dem visiti visiti ay ay ay recycling plants ak yooyu maa ngi laa wax ne kër kooka njaay laa nekkoon ma jógee fa def suma meeting si ba pare jógee fa attend fa conference ak attend fa gamo. Yang ngi understand yëpp stock up. ma war a jógee delu dellu Helsingborg Helsingborg, it's only outside, it's about, it's about seven hours on the train from Stockholm to Bilsudenla. Why? It's closer to Denmark. jëkkari nee na caam call na ma before loolu call na ma dafa dégg def su si suma benn si suma campagne explain suma police maa ngi waste management mu ma yaa ngi wax mm-hmm. mu call ma on ma te Aliou pour la rek ne Aliou dama ko xam moom before nee na caam di ñëw sëy si laa wax sax teraanga moo balaa nee na caam di sëy si ak Aliou hmm. laa bi moo sëy si ñëw na bi suma kër tàgguma biir Banjul mu teraanga dox suma diggante ak moom benn leneen li Aliou su ñëwaan Banjul fu mu jaar mu ñëw seet ma temps maa ngi liggéey si rajo maa ngi fàttaliku maa ngi naan may request sax moo nee ne yëpp 99 maa bi mu njëkkee ñëw Banjul si ma mun a fàttaliku man si diggante ma nee ne yaa ngi understand léegi ma dem jógee euh, ma war a ma sori Aliou call ma on messenger ndi amul suma number sax mu ma on messenger ne ma dama dégg yaa ngi wax affaire recycling plan mu ne am na link with new shopping uh, seen council bi there is a guy am na tubaab bu fa nekka uh, kooku noonu manager la foofu noonu mu ne ma why not ma link la ak moom su ko defee nga jéem a seet ndax na la mun a dimbale pour affaire recycling xëy na soo niiree ay bagage mu expliqué na la affaire projects lañ doon ma wax ak tubaab bi mu ne ma bés bés boobu noonu uh, gars yi Stockholm yi daayira Alaaji Malik ñu ngi doon def seen burda bi hello daayira Alaaji Malik bés boobu ñu ngi def burda bés boobu laa wax Aliou ma wax ak tubaab bi mu ne ma mu ngi nii mu ne ma waay ëllëg dina nekk suma kër because dina fa dina fa ñëw ma ne ko kon baax na léegi ni ñoo def su ma dellu xel si mboor yi dinaa fa jaare because new shopping is on the way it's between Stockholm ak fi maa wax ni ak Helsingborg so it was on my way going back to fële ma fekk wax naa ak Aliou ma wax ak tubaab bi dañ amoon appointment ñu mit pour discourse loolu nee ne fu ma jaar ñëw kër because dafa toog a reer daf ñu defara reer pour ñu ñëw reer lii moo ma yóbbu kër nee ci am ma bugg loolu leer xam nga kan moo deh may léegi maa ngi dégg léegi yaa ngi hari Pala Mari Pa Ousmane ma daan maa ngi dégg léegi yaa ngi suma sista boobu mm-hmm. man rohi, rohi mun naa wax ne roxi moo nekk nii yàlla xam na ne su ma ko xoo su ma ko gisee sax du ma ko lii benn yoon laa Dabo si victory celebration bi li fekk maa ngi Banjul it was in April after the election, the parliamentary elections ma tase mom suma broda suma benn mak Modou Diawo ne ma rohi loo moo nekk ni doomi Malick loo ma ne ko ah, ay waay rohi xam naa rakkaam yi man rakkaam yi xam naa leen waaye rohi xama ko xam naa bi mu génn Banjul ma nekk xaleel te xamaluma ko lu ñaaw gisaluma ko lu ñaaw xamuma dara ci mbiri rohi xam nga moo ma may lift jëkkëri rohi moo ma pick up from the station moo ma may lift paa foofa na moo ma may lift yóbbu ma kër neene rohi moo ma may lift soo xoolee vidéo di nga gis ne neene bi moo def live vidéo sax di nga gis jëkkëri rohi ñu ne ilimaan la man bés bu laa ko doore mi moom la si ñëw vidéo bi ñoo reer si table dafa dem toog mu ne nee na du ma génn si vidéo bi biñ pare mu ñëw toog ñun ñëpp ñu reer te man ma aliwa toog ak tubaab bi ñu wax Pa Fofana mu ngi toog after Pa Fofana dem ju maa ñibbi Pa Fofana mooma pick up mooma may lif yóbbu moo kiram xanaa kay nag nekk sooy wax lu bon doo wax lu bon ci kanami jabar jëkkari jàmbur laa foog wala ci kanami jabari jàmbur si li ma foog nit ñi dama bugg ñu mandu te bàyyi xel ñun ñëpp ñoo bokka ñun ñëpp ñoo jógee Banjul rooxi man comme li ma wax suma sis la te dama am cër si sa ñoom seen kër sax man xamaluma rooxi lu bon musuma ko waxal lu bon teman naa nag ne te man sax xamoo ne yi am problème ak nee ne billahi ak waxtu bi man xamoo ne roox yi mii am problème ak nee ne sax nee ne sax daddee dafa toog mu ngi woon ci mu jaawo jaawo a foofa na di jëkkëri roox yi mi nga wax ne la drop nono. ban connection nga am ak fa how did pa get to be able to pick you up Nakalap, la naka nga def pa end up picking you up and did you know ne pa mooy jëkkëri roox yi xamoon sax Pa mooy jëkkëri Rohi am telling you xamoon Pa I don't even know who Pa Fofana was ñoom nee na ñooma ne ma dina am ku ñëw jël si station bi I think ne because mu ngi dëkka si dëkka bi ba he is mobile lii moo tax kooku pick ma ba pare ñu def arrangement pour mu may ma lift this is the thing xamoon sax ne bi ma that very day sila la ma moom Pa Fofana si yóbbu na ma ba si station mu ñaana ma mu ne ma ku gën pour Banjul yal la yàlla may li maa wane amoon récolté foog naa ñëpp ñu maa gis xëy na Pa Fofana mu ngi seetaan li wala mbokkaam xëy na dina ko nettali lii la ma Pa Fofana wax amul dara luñ lii amul dara luñ fa wàcc léeg te biñ demee biñ demee bi bés boobu noonu ci guddi gi laa xam ne kii moo jëkkëri roxi roxi euh, kii roxiloo man xaw ma sax roxiloo man ne la comme su ma tasee moom mënu ma laa wax ne roxi mooy wala léeg billahi ak waxtu bi. ok li ma la doon bëgg a hello. ya laajte kan laa cee tontu. waaw heures du matin ñaata fan laa fa defa nangami fan man eh, nee na yóbbuwuma fa jëkkëri nee moom fa yóbbu ak business moom fa yóbbu bi ma tooge ak tubaab bi ñu discuss ba mu late man maa ngi wax ne ay seven hours drive eh, la journey journey from eh, Stockholm to to Helsingborg fi ma doon dem I missed the last train because reer bi fa guddee woon a yooyu noonu ma fanaan ba bur set first thing in the morning dama juri fajal da pare pas foofu na mais ma nit yóbbu ma ci station bi man benn guddi laa ah, fanaan waaw dama doon bëgg a laaj rek waaw ci beneen yoon jërëjëf Iwa ah, si beneen yoon di la dalal jaaw rek ci plateau bi nga xam ne ñoo ko bokka di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñoo déglu ñu seetaan rek ci jamono ji sorry for coming in late um, ah, ma dégg nga wax explain li nga bokk Caam li nga bokk ak jëkkër yi Nene Caam ak fi nga jaar ak ñoom muy teraanga gi sa parents ak i parents am seexoon depuis démba ni seen connection facebook boole wut leen which a lot of people were wondering thank you for clearing that now based on li nga wax ne yow yaag nee ne loolu ngeen seexa nga waxaat tamit ne ay at dang dee dem Sweden why you did not make the efforts pour giseeg nee ne lan moo spécial this time around ba tax bi nga demee am I understand wax nga meeting bi nga doon war a dem meet ak tubaab beeg yooyu noonu waaye lan moo spécial this time around ba tax nga àgg ci kër gi foofu because meeting bi tubaab bi su ma la understandee you were lan moo tax nga decide pour àgg kër nee ne this time around. dafa mel ni yow yaa ngi ma laaj question boo xamante ne dafa doy waar da nga laajte ndax da nga bëgg a lii ndi Nyata kir gambie la dem waxna naa la ne kër kooka njaay dal naa fa dem na kir pa dem na kir sid mbay dem na kir keneen ak keneen ak keneen dem na kir bintu njaay ñi dem seen kir yi so lan moy lan mo different Kir ñooñu ak nene. neene lool la mu ta gis leena ba pare ñaar li different li different li different nga bu a xam li different moy ni neene dafa def video tudda sa tur wax sa aha dafa tudda suma dafa def video because man dafa day video te man maa ngi doon am meeting at the same time So xoolee da nga gis ne ngi woon live yu ñaa doon cover Facebook live maa ngi woon live di def vidéo man sax yëguma ne nee fa nekk na nit ma ne ma na day daf doon def vidéo sa ne da nga lu na ngeen jël ko invite ko man la dara dara wax ak na because man comme li ma leen wax passing with uh, with a very reputable character for the past sixteen mm-hmm. years maa fi dëkka mosu mosu fee jaawakaay wa yaa fi wax li wala ñu ngi laa aate wala nangam fii Pa Ousmane yéen óor na leen ñaata yoon la fi nit ñi kuy wax alal yàlla ngi ni ibaa ngi la fi nit ñi day am ay issues maay sol suma daala wala ekkati suma téléphone dox ko wax ko rawatina man maay war a toog di seet loo xamante ne faa war a jógee ci man yaakaar naa kooku du jaawo ndax mënumaa toog di aate nit ñi jaawo monsieur jaawo ay gis na xam nga ne ci bi ma laa dalal ci commencement bi dama ne jawo mang la dalal ci liñ bokka ñepp xam jawo ragne la ci Gambian Talents ak li nga xam ne liggéey bu rafet bi nga xam ne ko fay def waye because of li nga nek di yëngatu foog naa maak yow wax nañ ci suuf ma wax la ne la nak platform bi de dinañ ko use independently not to because amna nu mo rek ñu ne Gambian Talents dafa endorse jawo ma la individual ku nek ci ñun lu mo def lolu yow di ko sédé right yo di nga sédé lolu dama la né platform bi duñ ko use aha ma ne soo bàyyi xel sax dama dee avoid moo tax ma wàññi in in in ah, Gambian Talents ndax bugguma kenn ku leen duut baaraam comme ni ñoo duutee ñeneen ñi baaraam su ko defee amee ni da ngeen eh, pour wan pour leeral la exactly la mm-hmm. yóbbu lii moo ma yóbbu mm-hmm. guddee moo ma fa fanaan loo mm-hmm. lii moo ma fa te foog naa am naa a right mbiri sax nee sax bu ma mu ekkati téléphone oo ma ne ma dama bëgg nga seeti ma mm-hmm. comme yeneen Gambien si ni ñu yëgee ne maa fa te ma seeti ma fa ma ko dama gunge ba airport amoon time pour dem kër këram ñoom ñëpp ku si nekk taranga ñoom waaw xam nga leneen li xew su fekkente ok go ahead may ko bu daaneel go ahead go ahead go ahead nee jotee comme jotee la it's irrelevant yàlla xam na loolu man I even consider te xaw ma ko sax yàlla xam na loolu kuy wax waxalal yàlla kuy wax waxal ak yow. waaw wa li ma doon bugg a li ma doon bugg a dugg si rek jaaw mooy leneen li ma doon bugg a wax mooy um, uh, tombe mooy indi ay gaaf man maag Eva the past couple of days we have been constantly in touch about this when Eva arranged it with you and everything. This is not the first time that an Ibrahim Ajawa supporter is actually attacking other people. Mark Eva wax nañ ko am na video boo xam ne ñu ko doon jéem a gisuñ ko Iva loolu am ndax amut. waaw dama ko download waaye suma capacité. Mm-hmm. waaw so waaw waaw loolu la so dafa am lu nduroo dëgga te du dëgga te dooree wut ci Nene Caam te moo tax mu xaw believable. I clarify this, please? Can I clarify this? Pausman, mm-hmm. Ibrahim Jawo is not responsible for actions. Am I making sense? Mm-hmm. You mm -hmm. individual right as part Eva you've got your individual right as Eva Sarr man si profession bi laa nekk comme ni ngeen ci nekk te maa ngi laa won ne man kilifa laa fi dégg yow laa de waaye Angleterre kilifa laa fi bu fi sëy jàngee mhm. damaa jóg taxaw mhm. ay a amee mhm. janga taxaw maa gis lu ñaaw sax si Facebook ma ekkati kool borom ne ak nangam yaa ngi dégg man li nga wax noonu li wax noonu right yow foog nga ne xam naa ne xam nga ne ñun xam nañ ci dara li nga wax noonu xam nañ ci dara man xam naa ci na this issue yàlla xam na ne ma bëggoon na def Facebook live suma boppa leeral lii because coow li bari woon na. Ah, te tey la doon bëgg a ñëwee nag la laa doon bëgg a ñëwee ak yow pour wax la ne la comme li nga wax noonu ne you are not responsible because those people are actually talking come is like Halifa Sallah supporters are coming out and saying things Lawyer Dabo supporters are coming out and saying things and people are attributing it to the parties when the parties are not responsible right please say this part Ousmane I te dinaa leeral loolu fii ah mhm. ma bugg li ma la bugg a wax mooy li ma bugg a leeral mooy ne man I am not responsible pour nit ñi seen lii te maa ngi wax kenn nag maa ngi use opportunity bi di wane ne képp koo xamante ne da nga gum Ibrahima Jaw wala da nga gum Dekali Banjul wala si maa nge saako bugguma dégg dara lu ñaaw lu jógee ci ne man de ku dugal suma wol bi dugal suma Facebook bi xam ngeen ne am very active on Facebook gi suma post wala wax lu ñaaw ama xaw ma ko sax mënuma ko. te duma ko def mu mukk la man maa ngi maa ngi leeral sànq Iba maa ngi laa won ne mbir mi soo xoolee boo xoolee man ñi taxaw ñëpp ñoo ma mag man maa ci gën a tuuti te kenn ku nekk jox la cër moom war te bu fekkee we have to meet uh, on a political platform to debate and or discuss our policies then that's fine li nga wax ji tey su ma ci noppee bugaatuma digga kenn ku ko wax ni ñi nag wax nañ lu nekk waaye jël naa yàlla ak yonente bi man aw ma dara lu maa def with this incident ma ci noppee tey du ma ci waxati te maa ngi ñaan bu ma ci kenn laajati dara yaakaar naa li ma leeral doy na mitin moo ma yóbbu ma jógee ci mit waa jaawa ñu ngi laa dégg demal ñu ngi laa sa voice bi Iva hello maa ngi laa waaye ñun nag ñu dégguñ la ko woon si gàttal waaye ñëwaat na. ma ne li ma bugg a ci lii tey bugaatuma dem on any platform wala toog di discuss fenen eh, Rohi Lola wala kii ñoom Pa Sala ñoom Baye Male ñoom all the other ñoom Yusufa Lo ñoom Ibu Fay ñii ñëpp ñoom mag maa gën a nekk xale te ñun ñëpp ñoo jógee Banjul the thing is there is no one particular route of getting to a particular destination we may all come from different directions at the end of the day getting to the destiny is the most important thing Muna naa am ñu utee si gis-gisi naka la ñoo doxalee Banjul waaye ñun ñëpp waa Banjul lañ Banjul moo ñu ñor ak ni ñoo yóbboo Banjul pour Banjul jëm kanam te ñun bu politics bi passé ñu ne neen ñooy dëkk Banjul ñoo nekk mbokka ma bëgg ñu rafetal ko maa ngi sàkku di appeal tam to my supporters man lu nekk sotti nañ ma ko te soo xoolee mënoon naa toog génn defante ak nit ñi wala ne nangam ak nangam wax aw ma kenn ku ma si tontu aw ma taami loolu sax man my my focus is naka la ñoo this is my focus te su ma I am not going to say anything again I will stay mute about it I I have got lots of things to talk about my policies and strategies te yaakaar naa answer naa seen question again. Hmm. jeex na euh, jërëjëf Diawo mbir mi leer na ba tax nag lii la laajal tontu la comme lu Pa Ousmane wax la doo ci gan tax xam nga média nu muy demee be tax nag question moom rawatina Gambia talax talents ñun amuñu lu xam buy sedda suñu cin dafay baax côté boo laa rek day bat bat yaa ba tax nag nag wax dëgg neex yàlla apprécié nañ ko bu baax a baax a baax sa diggante ak nee na loolu ban relationship ngeen am ndax xam nga ko wax nga ko fii ngeen ne xamuloo ko soo ko gisee sax doo ko mën a right now nii ndax am ngeen benn relationship xam na ne amuñ any relationship ñoom ñëpp laa wax suma mag lañ kenn ku ci nekk leen cër moma war um, I have been approached by other people buguma name names ñu ne ma pour ma tiimo ba rugi ma tiimo ba ñu suggest yeneen candidates waaye comme li ma la wax su ma tase rugi sax duma xam kan mooy neene uh, xaw ma kan ñoom pasala moom xam naa leen pasala suñ kër la ci suuf ñeneen ñi aw any special relationship ak ñoom xam naa ne man rugi sax man bi maa génn guma ne rugi génn na I don't think so te bima kima ki ma ne possibly may, maybe e contender wala ma sigoon opinion wala advice am moo nekkoon Pa Sallah and I reach out to him ma won ko ne ko dama bëgg a taxaw mu jox ma blessing am ak yooyu noonu this is the thing yaakaar naa yeneen candidate yi amul kenn ko ci wax naa suma gaay ak ñoom waaye amul kenn koo xamante ne wax naa moom gannaaw Paul Bass astafurlaay yaakaar na dañ doon canvas yi ñu ngi woon biir bañul di génn di wër ñu fekk ko moom suma néebo la maa ngi jógee number eleven Hopkinson mu ngi jógee number twelve moom dëkkandoor lañ ma gis ko taxaw nuyuwante ak moom jaamalante ak moom mu ne ma xam nga ne maa ngi yoroon ma ne ko xam naa ko waaye nañ toog waxtaan gannaaw loolu amul kenn koo xamante ne am naa moom any special relationship wala waxtaan ak moom si mbiri dara wa loolu leer na jawo ba tax nag yaa pour dem Gambie so demee Gambie Nda fas ene nga pour mit ki nga xamné moy adjulo gannaaw bi nga xamantene amna dox sa diggante ñom pour dem gannaaw yo nga né yaa gën a ndaw ci ñi taxaw ndax paré nga gannaaw ñun suñu ay maam lañu yaré won moy xalé mo daan wali mak ndax paré nga pour dem wali ki nga xamné moy mooy xelo pour defar sa diggante bi ci issue bi nga xamné ne na ma ne am naa problème ak gi loo because ah, comme li ma la wax ñom ñëpp suma mak lañ man taxaw ma sagaru gi xasuma ko xasuma ay mbokam xasuma daraam am man waxuma lu ñaaw te duma ko wax te santuma kenn waxal ma lu ñaaw on my behalf ndax eh, luñ de wax man bu fekkoon ne damaa jóg pour def loolu yaakaar na borom déj déj bi mun naa jooyal boppam man foo ma làmba daj ma bu dee wax mm-hmm. tabarikàlla su dee leneen waaye su fekkee ne eh, aw ma benn tam mun naa mun naa toog euh, su ma tasee moom dinaa ko nuyu comme bi ma bi ma eggee Banjul sax dem na ma gis di incumbent what's his name Mr Mr Laiba ñoom ñëpp laa la wax ñoom a mag ma pare wàcce suma moto dem ne dama ko nuyu ñi ne ma doo dem nangam ak nangam waaye man man a ma xaaj ak seen pasala suñ bunti kër la moo kaam fa la dee ma taxawal suma moto bi mu ngi tax mu ngi béré damaa waxu dem fekki ko nuyu ji ko ko toppaa ma problème yooyu man loolu du suma problème man teelu ma kenn xadar géewi politique sax te teen asamaan li ma dee wax rek jarul buuxante fu nit nekk ku nekk gis waaw mm-hmm. jaawoo jarul buuxante boobu gis tamit ne keneen defoon na vidéo nu mel comme lu Pa Ousmane laajte woon la am na keneen ko comme nee ne nu vidéo bi ndig ko gisee woon laa ko download xamoon naa ne because ñu ci doon investigate ma waxtaan koo Pa Ousmane si ron waaye wut ne lu xew rek dañ ci dee génna dañ dee def suñ xam nga nu mel ci suuf bu baax a baax bëggoon nañ la see approche waaye ne xaaral ñu daal ñu def suñu research ci suuf ba loolu dee xamante ne ñu ngee génn di mbugoo jaawoo maanaam di mbugoo sax jaawoo bugal mbugeel foor mbugeel dafa foor am na ñoo xamante ne dem nañ to that extreme ñu ngee cast ñi nga xamante ne ñoom nga bokkal géwi ëtti politique bi kooku tam gisoon nañ ko mu attaqué nga xam ne mooy Pasala Jeng amul wax lu mu waxutoon ci moom maanaam daal suufal ko suufeel ko daal lan nga am pour wax ñi nga xam ne sa sa cofeel si ñoom sa sa cofeel si ñoom jégit na dayo ba nga xamante ne ñu ngi laa si suuf ane ma wax man musuma sante nit musuma tok man kenn duma mun tok dun ma bara man duma wax lu bon duma def lu bon iba te gëw ne si suma dunda ñaan naa ko yàlla ndax na wa xame wuñ la lolu jaaw wax dëgg neex yàlla man yow fi do pas Ousmane fi sax way man yow ñoo dee laa gën na dunda sax iba sar xam nga xam nga li ma wax rek gis nga liggey bi dafa doy war te ku bot bu ki xaj bo la Ibrahim Jao, yangi Gambian Talents several occasions incidents xew na bir Gambian Talents nga ekkati sa telephone call ma na maraka rakka lii ak lii ak lii ak lii ñu régler si suuf so say tànk ak jéego yu yi nga dox si community bi loolu du lu kenn nettali te man mi dama ko dund ak yow nga dox ko ci bir Gambian Talents ci bopam bir kër gi ak li nga xamne ñu ko def community bi ak askan bi di si am ay problème ma seedeel la loolu mhm. waaye ak ni mu ko waxee rek ne ku boot bu ki xaj boobu la politics bi moo nasti right now Gambian politics a ngi jax diggante parti yi ak diggante xeet yi you have some people a few people te li xew mooy ñooñu seen action si dafa prominent because ñu ngey génna di wax ci turi parti yi di wax ci turi tribes yi bay merloo ñeneen ak ñeneen and Ibrahima Jawo is no exception di taxaw pour Banjul am ñoo xam ne su leen Jawo ne jump ñu ne ko how high Jawo has a responsibility comme ni nga def nii to educate those people to um, encourage those people comme ni nga xam ne dégg nañ looya Ousseynou Dabo def ko wax ak waa UDP party ne leen bu kenn wax it my name ñu dégg Halifa Sallah def ko wax ak waa doy because bi mu demee toog kër Fatou comme ni nga def ak when Khalifa Salah was on Kerfatu, ñoom ñang jaay di interview. At the end of that interview, Khalifa told the Joy supporters, ne ñii seen liggéey lañ nekk di def bu leen ci kenn ŋaaña bu leen ci kenn xas because the next minute people they would have taken it ci seen xol génn di wax yenn wax yi so foog naa ne it's okay pour ngeen ne you are not liable for those people's actions but you guys also have a responsibility to constantly be in the ears of seen followers yi di leen waxal di leen gàgganti di leen wan yoon pour buñ def li nu mel uh-huh, <laughs> go ahead. not liable for their actions uh, li ma wax sometimes I'm not even aware of this videos I'm not even hard side of these things it's possible wala xëy na man ni ma ko riide ak yéen a ngeen ko riide man lu gis loo xamante ne fiil naa ne lu yaaxala ma ko wax ci te man Dekali Banjul maa ngi ne man my team is called Dekali Banjul tey bari nit ñoo change nañ seen profile pictures def ne ñooñu ñëpp dekkali Banjul lañ nekka teno dekkali Banjul members dekkali Banjul suñ kilifa yi yaakaar naa am na ko fi comment sànqani muy Pam Ibrahima Faye kilifa la ilimaan la bor bu set li moo wax mooy bugguñoo dégga saaga bugguñoo dégga xaste Ibrahima Jaawo ku ñu yar la ñun dañ ko xam Muhammad depuis ma nekkee muslim high school nekk xale bu daw kon koku xamna suma jiko? te muy ma sédel lo xamanteni lu mu wax kali bañu ak waa GDC kon ndegem ñoñu ñu ci si suñ biir diñu euh, orient oriente loolu di def di diril lolu suñu nopay waxtu bu nekk maa ngi saaku tam ci ñeneen yi nga xamanteni ne mu ngi social media jaaw to jaange gi yépp social media la xewé di waa du ngi social media mu ngi social media Ousmane may ko mu ñew man li should be about my visions and my and my uh, naka lañ ko my my eh, strategies wala policies yu ma am it's not about any particular candidate wala leneen yaakaar naa leeral naa ko te comme li ma wax I don't want to discuss this any further man maa ngi saako ci nit ñi yaa ñëpp koo xam ne Ibrahima Jawo la ñor wala GDC moo la ñor wala Dekali Badji wala nu mel maa ngi ñaan ak yeneen yeneen nit ñu nekk ci yeneen politics political parties yi ala ñeneen ñi support yeneen candidates yi nañ leen rafetal te yéen ngeen bàyyi xel ne ñu ni neen ñun wa Banjul lañ de ñun ñuy taxa Banjul ñun ñëpp ñoo bokk de candidates mun naa leen a tuddal ay nit ñoo xamante ne ñun ñëpp dañ bokk ci nii wala ci nele te lii bu paasee ñun ñooy dëkk Banjul ñun ñooy ànda ñooy demalante ngénte ñooy demalante dëj ñooy demalante ay jotaay ñooy toog di tasee benn bu bu fekkee dañ magante sax am na cër yoo xamante nañ koo joxante te ndegem ñun ni neen génnuñ di roodante maa ngi ñaan ñeneen ñi buñ ko def man de ku ko def suma ma la man jaawo ku ko def suma tur baalal ma te koo xam ne jaawo la ñor wala ngaay maa mbubu wala ne jaawo moo la maa ngi ñaan ngir yàlla ak yonente bi buñ leen ikkati fitna man luy ikkati fitna pa Ousmane xawma ko pa Ousmane Iba laajteel nit ñi nga xamanteni ñoo afday ak man man pa Ousmane def naa ko be foo xamanteni boy serigne fa daan dajé fitna difa man studies rek jàng rek laa daan def bañu laajal ñi yar ak ñi ma ñi ma dëkkaloon dinañ la wax li man def naa ko be duma vu, man pa Ousmane duma xuloo man duma xeex man jëfe fitna bëgguma ko loo xam ne dafa ikkati fitna bëgguma ko dekk naa Angleterre fukki at ak juróom benn ak dara kenn musuta ñëw ñu ne ma jaawo bàyyil diw bàyyil wala jaawo nangam te góoma ne dinaa dugg ci géewi politique di fa yóbbu loolu ma bugg nag ñu change topic bi dem ci wàlli policies suñ amul lu leneen luñ cee teg ma taagu leen jaawo waaye xam nga ne tam duñ mun a just indi policy because of lii lu mooy coow li la toppa ba tax na comme du Pa Ousmane wala duñ ko mun a jël a ah, jaawo loolu moom bi si àndaa yow duñ ko mun a jël rek eh, eh, Iva Iva Iva Iva Iva Iva waaye nag ganaa waxtu bi mooy Pa Ousmane bu doon ñëw dafa waxoon ne mayut ma waxtu bu gudda dinaa ko ko respectal ba mu sek ñu ngi jow si jeex show bi ñu apprécier ko bu baax waaye duñ ko doon just mun a def mu bias ñun duñ koy doxalee noonu te foog yow xam nga ñu nit bokk nga si suñu ay mentor Iva bokk nga si waaye ñu demal ata waaw fi ma doon bëgg a ñëw rek moom jaaw again comme li ma wax rek ñii seetaan ak ñii déglu suñ xamut Jaawo xam na fi last time mm-hmm. as we speak he is supposed to be the next candidate that we will be having on the Tambambalu show nga xam ne Ramatulaay mu ngi jokk mayoral candidate yëpp ci Gambia loolu lu am la jaawo ndax amut yaa ngi dem Banjul ndax maag yow waxuñ ne soo delloo Banjul Ramatulaay am la ci Tambambalu bi loolu am na ndax amut xooloon nga ma xooloon nga ma pour seen ndax maa ngi Banjul ma ne la maa ngi tukki waaye egaaguma Banjul waaye incha allah fan yi ci fan yu néew rek inane ka banjul uh, so bi ma yégee sa dem banjul ni arej na ko already soo by next week lay dina la am ci tambambalu show bi exclusivity waxtane policy yeeg yi nga yi nga bëgg push yow pour si capitalize ci show bi show bi li tax ñu indi la ni ko Iva this issue of Ibrahima Jawo yoni ne ne yoni yoni wut ko lolu moo tax ñu indi la fi policy yeeg yeneen yeb definitely soo demee ci ni ko dee defee dina waxtaan ak yow nga gën a leeral ni ko ñoom Pasal la defee ni ko ñoom Laye Conté defee ni ko ñoom am yeneen mayoral candidates yi yëpp mu interview leen because we are going around all the mayoral candidates even Bakary Badji mi nga xam ne sax mu ngi dellu si waat America bi mu nekkee Banjul Ramatulaay mu ngi ko doon jéem a am munut koo am so dafa am loo xam ne noonu lañ ko tëralee waaye Iva yow yaay jiite show bi nii rek nga continuer pour fàttali jaawaloo rek ne incha allah tude lo banjul dinañ ko am si mbalo bi su ko defé gaay mu ko koo mu ko koo seetaan continuer hmm. iwa rek nga lese ñu continuer taxañ yépp yi yo xam nga né bo fi togué rek suma xam-xam fay dal di ngir lan experience di besti ca maanaam sax experience rek ba tay ñu ci jàngé ha ya. waye nak jaawu luñ la waxon la eh, duñ eh, ko jël défé ko bé d'abord waxtu bi nak mu ngee guddi ci dé tax nak rek élek liggéey la soxla am nañ la nga am pour wax li nga xamante manam mooy doon sa final word si askan bi bu la neexee foofu nga dugal si say policy bu la neexee it foofu nga jaay sa bopp ba nga xamante ni maanaam egg nga ci kaw lu la neex defal waaye nag mënta ñàkk la moo tax <laughs> nag because dañ doon bañ mu nekk mbiri drama ñun drama fii duñ fii duñ ko soo ñu gisee sax ñii drama ñun duñuy dugal seeni ay mbir ba tax nag rek waaye li dafa ñu xaloon askan bi ñu bëggoon laaj tontu ba pare nga nekk koo xamante ni maanaam yaay birima ba ca benn kàddu ba boo waxee ren bala ngaa waxati at buy ñëw loolu nit ñi ñëpp respecté na ko ku nekk xameewul jaawoo li moo tax bu coow jógee jaawoon ko yónnee yónnee wuñ ko nga gis vidéo yi ñu jokkook yow ci ron nga acceptal ñu ko ñun duñ def dara lu dul suñu cofeel gën a ci yow ba tax nag rek yow xam nga ne saa ma tasee yow mënuma express ne fii laa bokk fii laa bokk waaye su ma tasee yow man loot me yow rek laala la dee ooyee loot me yow rek euh, xam nga ne Banjul kenn ëppale ma ci ñii coow nii yëpp xam nga ne man Banjul du ma si silib caayalaati waaye nag su ma liggéey mayut ma pour ma wone fu te duñ farfarloo te duñ farleen dañ bugg a su aji roxi loo muy déglu mu xam ne suñ liggéey la ñoo def farle luñ ko yow mi Ibrahima Jawo duñ na farleel despite ne suñ mento nga bokk nga si ñun te su ma magi xool nga si boppam waaye tamit mbir bi dañ koo teg ci li nga xam ne mooy teg si liggéey bi nee na Cham Gueye akama am relationship bu taxaw bu dëgër nag ak moom te ñu ngee interview ak moom mu nangul ma ko nag moom Cham Baba a Cham waaye nag lu munta ñàkk faaw ma am Jawo ñu bàyyi la rek nga nga nga nga nga explain policy yi maanaam Banjul ni nga bëgg mu mel ni Dubai ak li nga xamante ne soo ñëwee yow di nga ko def in a different nga xam ne jaaroon nañ fa ma bëggoon a jël opportunité bi <clears throat> pour gërëm la uh, di la woon ne ma rëcce a mooy fana dee bi ma jógee fana dama jos ega nga text ma gis sa text uh, ah, woon ma ne nga bëggoon ma ñëw on this platform te yàlla xam na ne bëggoon naa rek pour def dama xool tontu ma ne ah, xaaral rek ma def a short video pour won nit ñi ne aw ma dara lu ma defali ba pare jégalu su fekkee ne dara lu ñaaw am na ak ma ak te Iva man ku ma tooñ baalal naa la man baalal na ñëpp ndax julit la te man taalibe Cheikh Diga la baalal naa ñëpp te ma kenn kum neex taxaw saaga ma ndey wala nangam du ma wax lu ñaaw man xaw ma ko yaree wuñ ma ko te loolu laa fas yéene continuer te maa ngi ñaan yàlla ni di ñaan nit ñi nga xamante ne ñoo àndaa man wala ñi ma gëm ñu dimbale ma ngir yàlla ñu mootal loolu ndax mooy suma mébét fu ñu gis lu ñaaw ñu sol daal def ko ndax imam Baba Ndiaye xëy na mu maa dégg Nottingham fii saa yu nekk la ma dama doon kool bu saa yu nekk bu fi fitna jógee daf maa oo keneen ak keneen suma jigéen Fatou Menga mu maa seetaan fu mu dégg na ni ma buroo jogal bul toog yaa ngi kon man mënumaa toog nit ñi jox la cër bu mel noonu ngay toog di ko xeejamal ñaanuma yàlla loolu te li ndab la rek ñun ñëpp dañoo jow suñ loxo pour lekk na ku nekk rafetal ndab bi bu desee buñ lekkee bu desee bu keneen ñëw ñëwee mun a lekk bu jeexee bu keneen ñëwee mun cee def def ah, sotti lu rafet lii laay ñaan nit ñi di ko sàkku ci nit ñi te fasatuma éene wax ci lii bu ma ko kenn laajit maa ngi appel ci loolu su ma waxee nii bugatuma ko wax te duma ko repeat maa ngi ñaan lii li laay war a suul su beneen vidéo sax afin <laughs> nag yi am sax am na ñu mu yónnee ay naan maa ngi def thank you te fu nekk laa kool xool naa ba kool honorable Ousainou Darboe pour won leen rek pour fitna gi fay mm-hmm. ma kool suñ ay janta yu nekk fii ci kilifa lañ ci ci ñeneen ñeneen pour wone rek ne na fitna gi fay ndax man xaw ma fitna bëgguma fitna nañu laa tëdd ci dara tooñ nag wallahi waaye nag ah yal nañ jégalante ñu xam ne ñun yëpp Gambien sañ at the end of the day te politique moo demee nii waaye nañ rek moo gën ah, di leen gërëm yéen nag bu baax a baax a baax a baax gërëm suma sista tam Fatmata Kooka ñoom nee na yëpp ñu ak supporters ñoom ay daraay leeg waa dekkali Banjul rawatina waa dekkali Banjul juut si ak kilifa yi fa nekk ñoom ñoom pa waaka ñoom pa Ibrahima Faye ñoom anti ñoom anti naato ñoom anti ah, ñoom anti lisong wax dëgg kilifa yi yaakaar naa suma ma leen tuddee tuddanaa ñii moom amaluma leen fay ndax boot nañu rogante nañu téye nañ ñu buñ gisee ñu xaw a sax ja jaada yoon sax ñu jël ñu xëccaat ñu ne du ni ngeen a defee. jaaw am na ku doon laajte fan la moo mun a amee sa policies yi am na ku doon laajte fan la moo mun a amee a copy of your policy. website bi is available te ku dem suma wall bi wala nga def Ibrahima Jawo Ibrahima Jawo mayoral 2018 uh, soo demee foofu di nga gis all my plans mu fa wala di nga gis website bi it's available it's www dot ibrahima jawo dot org. mooy suma website bi di nga gis may manifesto ba pare all my plans in Banjul mu fa yaakaar naa waxoon naa si bare bare. baree baree bari Banjul war nañoo seet shopping mall si bugga naa ñu am terminals terminals yo xamante they would be they would be first class terminals yo xamante ne comme si si naka lañ ko wax di at the port nga am terminal boo xamante ne na nekk boori Denton Bridge ak yu mel nii ba pare transport itam bugga naa gis ne am nañ ay one way system Banjul ñu map ko out in such way boo xamante ne dinañ am ah, an administrative and political area nga am residential area nga am eh, nga am ah, ah, naka lañ ko an industrial area ba pare nga am ah, e commercial area lii bugg naa ko gis Banjul bugg naa gis congestion charges in Banjul ñu am ay cycles yoo xamante ne ñooy dugga indi inner city ba pare di heavy duty lorries yi nga xamante ne ñooy dem to di seaport buñ dugga ci biir dëkk bi ñu jaaree turu Bond ñu amal leen a ah, e parking area around Bond Road yii yëpp bokk na ci yoo xamante ne we already map it out on our plans te lii lañ bugg a lay comme li ma wax bari ak ñoo bari yu luñ mun a wax ci wàlli policies and strategies rather dañuy waxante lu ñaaw maa ngi leen a salaamaaleykum waaye jaawo bala ngaa dem euh, last question bi nit seen na ma ko léegi nii suma message bi mu ne daal ñu ne jaawo is not qualified loolu lañu wax ñu ne jaawo daal qualified to xam nga euh, bëgguma ko wax si anam gu ñàkk a teggin xam nañ wax ji fu mu ko buñ eggi because yaa ngi xool yaa like a British citizenship bi moom foofu ko base ne moo tax qualify loolu euh, Iva nit ñi nag ñoo nekk di wax lu leen lu ñoo wax rek te amuñ dara lu leen uur man nag du ma toog si Facebook bi fii di leeral naan citizen si bile laa tiyeeg nangam ak nangam even su ma nekkee édual citizen édual eh, citizen nangam ak nangam yu kenn xamul ku nekk lambaatu na ma fu nekk ndax éligible naa ndax éligible ma yaakaar naa eh, nit ki doo mun a xam ba nga submit your resume at eh, the Independent Electoral Commission te yaakaar naa ne based on my preliminary checks I am qualified and am eligible to run as a te yaakaar naa ñi nga xam ne yaakaar nañ ne eligible disqualify comme lu gars yi wax wax ma ko mu ne ma make it loolu la wax de ah waaye jaawo tontu na wax na ko very qualified yeah I'm very qualified I'm very qualified xamante ne maanaam man loolu sax bu ma studier bëgg a maanaam kii comédien la jaawo is not competent comédien la askan ni Banjul eh, di di xoolee jaawo eh, a comédien man moom loolu wax dëgg ne du ma si dee bugg a duga maanaam ñi naan because ñu laa as a comédienne maanaam te comédienne boo xam ne nga achieve nga sa master's degree maanaam gis nañ fii comédienne si loo xamante ni maanaam ñu ngi achieve yu bare bare te yow li nga dundal ni maanaam nga ne eh, li nga def ak li nga study bokk na ci bég ak bégle bégaloon nga ñu bari tey boo waree taxaw laajte Banjul te nga nekk te nga xam banjul yaakaar naa ne comme lu ma wax la rek duma ci mun a dem ba sori ci suma liggéey mayut ma ma wax suma lan nga am pour tontu ñooñu di la wax ne because gis nañ post boo xam ne di Gambia tuddee bindal nañ la ko di la ooyee doof ak yooyu noonu yëpp xam nga ne la yaa ma ne la jégal naa ñoom ñëpp Iba ku uh, xam nga der bi ci gannaaw bañu dar lu neex nit sooti ko waaye nañ xalaat suñ diggante ak yàlla te xam ne bés penc yàlla nañu xisaab yàlla buggu tooñ yàlla buggu wax wala sos wala def loo xamante ne du te man li ma fas yéene suma dunda gi li ci def wax ci rek ba ma fiy jógee incha allah te loolu laa bugg a def ah Iva man ah, comme naan jaaw comédien la dëgg la am ah, an actor am a comedian and I did HND on it ah, I love it it's a passion bu ma am te Pa Ousmane Diouf mi actor la comedian la waaye terewul Pa Ousmane mi nekk actor nekk comedian ute na Pa Ousmane Diouf mi nekk këram nekk borom kër nekk fa kilifa ute Pa Ousmane di jàngal nit ñi jox nit ñi xibaar yu leer nit ñi différencier ngeen ma su mm. fekkee ñëwut outright. bëgg ah. bëgg naa nga leeralal ma bu baax because that comedian word foog naa ne war a stop di ko use. Ah, it's okay it doesn't it doesn't penetrate my skin iva dama jànga mbiri mbiri acting and directing iva ma am ci ay yu mag nag ba pare ci ci for naa di best Gambian actors yi nga xamante ne te yaga big bégle juga si télé beeg yooyu noonu Iba ba pare time boobu noonu Gambie xamuñ xamuñ lu mel nii waaye tey boo so Sénégal raw ñu lu baree baré baré. lu mel nii moo tax Iba ndax soo xoolee Youssou Ndour Youssou Ndour nekk fi ministre te Youssou Ndour mhm. ah, musicien la daf daan bégale Youssou Ndour ci boppam soo xoolee xëy na jàngam demeewut sori yooyu noonu waaye nekk na fi ministre eh, ministère position boo xamante ne deliver ko te deliver very well nga xool Ronald Reagan nga dem ci ñoom ah, naka lañ ko ooyee ñoom anol ñii ñëpp ay acteurs lañ ak yeneen ak yeneen nga xool Senghor ci boppam poète la woon ak yu mel nii soo nit ki dafa ñoo xam ne dañoo am ñoo ooyee la foofu rek di current president of bu yàggut nii di current president la dafa rek Ousmane nañ dellu soccer player parce que man fi nga dem sa sori suñ président bi baro ci boppam was a security guard li fii ndax loolu dafa tax. doon métier am nga sax loolu sax gars yi nañ koo gisee as ne ok liggéey li fi la bo den comme ñi yëngatu ci fo foog naa fu Iva di waxee mooy ñi yëngatu ci yëfu fo ak ak ak dégal nit ñi for example sports ak yooyu noonu that's where he's coming from the current president George Weah of course everybody knows him and the role that he played lim play si soccer ci Liberia ak fi mu sport ci Liberia right now where does he stand so these are all things yoo xam ne mooy loolu boo yow nga jëkkale ko sa bopp rek my skin at ma moo tax ma waxoon ko si starting bi Ibrahima Diaw mi nekkoon comedian man kilifa laa kenn laa yëpp na an Ibrahima Diaw bi nga xamante ne tey ji moo taxaw Banjul su fekkee li jàng alhamdulilah tey su fekkee xam Banjul la xam history Banjul boo xamante ne xam na li ma xam ci Banjul xam cosaani Banjul xam Banjul te war ko mun a doxal li raw li ma ko mun a doxalee moo tax na maa na laaj Banjul ngeen jóg jàppasi jox ñu seen carte yi dénkan ñu Banjul bu boobaa di ngeen xam li fi comédien bi mun a liggéey ak lu mu mënut a liggéey foofu laa ko emale salaamaaleykum. waaw jërëjëf jëf jaawo mu ne foofu la ko emale ba tax na gërëm nañ ko bu baax ñu rit commencé rek ñoo ndar képp ko papa Ousmane jërëjëf ci jàppale bi nga ma jàppale eh, Anna Sarr mu ne how come eh, mu ngee dem di moo vidéo bi mu ngee dem duma ko mun a rit eh, waaye ma ñëw Sadikulaay mu ne dual citizenship he is qualified Jang si mu ne thank you jaawo Sarr Saro Sarr mu ne xa Ha ha ha, amzou genal fi. Amzou genal fi. Eh, bili Jouf mounen jawo prezident. Dek bili to kalnak, minge wasi me yon gene prezident. Ruki <laughs> Malik ro, eh, mounen tabit Mohamedja. Mounen Ruki Malik lo, mounen mounen mounen mounen amzou. Eh, Ife... Nansinyasi, some of our ministers in the Gambia have other nationalities moom la Ifiwa eh, mu ngi gën a dem na kwa dëgg mën naa ko read su dem Anna Sarr mu what's wrong with being a comedian eh, Yaamu Ndaw Sarr mu should IEC should decide on that Yaya Dabo mu the best party in the Gambia is UDP Amzo Dawul chow. Eh, Amzo moom Bada Job mooy wax loolu Anna Sarr mu subhanallah Sadihou Laye Niang mu even if you have a British citizen you cares UKS, he is from Banjul, Saro Sarmune Wiwjawo. Usman Jala, I will endorse Musa Lee for Interior Minister. And i hmm. Menga Bor Eva <coughs> show bi finish na lo. waaw so bi finish na Fatou sorok nasa. Kornak kon nag euh, la because ñi tamit dañu dee dooleel bu baax a baax a baax toog oote nit ñi dina seetaan la rek Iba su very important in our society at this time who don't know Mr. Dieng Mina Jaañ mu ne mane bu ko neexee sax na taaxuraan sax nag waaw Musa Li mu ne jaaw for 2018 Omi Jaaw mu ne jaaw rek Njanko yaay Ndumbe Gaal mu ne Anti Fatima um, Jan C. Mune Love You Moja or Agilison Oliver Mune Hollywood. Um, uh, musali, Mune, we need someone who can fix Banjul. Um, Jao for Banjul. Fatmata Rahma Koka Mune, well said. Musali, Ali Mune, we are proud of you. Um, Ibrahim um, Afai Mune, forgive and forget those who disqualified you. It's better to be a comedian than a drug dealer. Anasar Mune, thank you very much. Our ba, Yai Ba Mune, education is paramount in anyone's life, especially when it comes to running a country. Um, Njet Sarr well said um, Anna Ndaw ya, ham Jawo yaa xam Banjul te yow leen lox um, Mata Koli es Jobaate mune view Viw Roxi Malik Lo uh, Fatmata Fatou Mbenga Mbor mu ne wax bi rafet na yal yalla def jamma incha allah Anna Sarr mu ne xaaxaa mi na yaa wax loolu yaa wax um, uh, mu ndax wax um, ah, Bada Job Mune Hamad Ba was a bombster. Akata, akata. <laughs> Mandu ñore des. Mohamed Jara Mune Fatou Menga Mbor uh, ah, Naga Naga Tuduloo Fen uh, ah, Mune Tuduloo Fen. Waaw yooyu ñooy some of the comments. Caroline Mende Mune you are not a drug dealer Jawo. Uh, wow, so those are just some of the comments. The latest one boo xam ne dugg si na Iva Sarr. uh, ah, kananga kontinek taka jefinyu get duga sinag beteng kata kanjrek <laughs> men ci ani dina dugg si Paa Ousmane ñu rafetlu ko jaawoon ni la tolu be tax na bu duga ci rek askan bi ñoy utali ci ñew jox ko li nga xamantene manam maanaam sopotam gis-gis la nak comme nu ma ko dee waxee dafa yaatu yow mi too danga am ni ngay gisee man Eva am nañ may gisee Papa Ousmane am nañ may gisee way nak nañ ko tek ci cadre yi yar tegen ak discipline ba mu met sëkk xew-xewi jamono nak doxul ci politique way dafa fekk jaawoo mu ba tay dafa loxom dafa japp dimanche munta ñew mu am ci limu nekk nag nekk ci yoon di dem be tay rek ci campagne am bi motax munta ñew dimanche comme nu mu ko waxe motax tay ñu indi ko ci jotaay bi di xew-xewi jamono waaye nag du suñu toogaay ba tax na rek politique moom dimanche la ko jagleel ba mu jeex tàkk mu tànga jéer nag gërëm nañ leen sant leen bu fekkee am na benn kàddu boo xam ne rot na fi te tegg ñëw rek jégalu ba tax nag doomi adama la muy dawal suñu borom lu juum ba tax nag rek képp ku mu tàggante rek na ngeen daal di nekk ci yoon ñu ngi jégalu next week la muy doon allah ci men wala même télévision papa Ah, iwa idama buga wax lu ndaw lu gata digeɗen jaw gannaaw bi nga ni buga soro sax jëlal wa jaw mom libéré nañ ko mën na mo dem jamono ji ba tax na moom jàppale gannaaw bi nga xamee ne waaw am e, jaw ñoo na waxtaan ak askan bi ñu ko gërëm di ko santa comme ni nga ko waxee whole week am bi yefi yi be tay ñu ngi monitor situation bi pour xamal askan bi rek ni nga ko waxee ci gannaaw ne we don't just sit and talk about everything we monitor we see su demee ba nekk a national platform rek dañ koo indi waaye ay ñaari nit ñu toog am seen problème ataagante def seen mbir duñ ko gaaw a indi and that is what this was about ñu contact jaaw nag wax ak moom mu d'accord li tax nag may wax li ma wax mooy followers si supporters yi ñu leen bàyyi suñ xel Gambia bugga Ibrahima Jaawo bugga keneen ak keneen bum tax nga def naka sudut noonu wala wax naka sudut noonu comme ni ngeen déggee ma wax koog jaawo saa su ne ñu ngi jokk ci suuf maak moom ci yu bari waaye on this platform he is not gonna be spared he is not gonna be giving any special privileges te dañ ko waxtaan bem set wécc maak moom mu nangul ñu nag d'accordal ñu ko he's given equal opportunity equal platform like everybody else For ñi déggut wax ji because am na ñu bari Eva the same thing li ñoo am um, uh, uh, gis suñ toogee wax ci Halifa Sallah waa dooye du fi am xataraayu ku saaga gën a ñaawee ñu dogal ñu ñu wax ci GDC anything Gay yi jóg ne du fi day ñu dugg si APRC ñu ne dinañ ñu lekka ñu dem ci UDP ñu bu ñun face à face ne du ci am we don't spare anybody here regardless of who you are Eva Sarr indi na ma on this same xew-xewi jamono ma am yu ma fi leeral we talk about each and everybody koo xam ne yaa ngee def something the moment riiraan baa ngi la topp ndiiraan baa ngi la topp rek coow ngi ne sa kaw we are going to talk about you and that is not something you can um, uh, uh, escape. Block new. block ma, do whatever you want to do. As we speak, we are here talking about Nene Gay today. Behind the scenes, a lot of people ask, "You ngeen wax Nene Cham, Nene Cham Nene Cham lele." Nene Cham na defaat video fuki video Yen ñi setan nag ñu ci bari yéen a setan bi moo toog ñu defaraat video na dem defaat fuki video ak juróom. We will talk about Nene Cham, we will talk about Jawa, we will talk about anybody, especially yéen Gambien yi nga xam ne yéen yëngatu ci li nga xam ne yóbbu réew mi kanam ngeen defee lu baax ñu wax su ngeen defee lu bon ñu wax kon Gambien yi maay ñaax ñëpp rek ñu seet naka la ñoo rafetalee dal jaawoon nii nga xam yëgu teenut turam des ci yëf yi and is very convincing mu tombee mu dem cet ne neeg yëpp waaw is very hard for him to have convinced people ne lii moo xew wala le moo xew waaye dégg ngeen li mu waxal boppam so kon def lu baax ak wax lu baax ak rafetal am solo maa leen ko ñaax nag di leen ko yéen ñëpp that nobody is gonna be spared and yes we have said this on multiple occasions information come to us left and right this video of Nene Cham Nene Cham picture booba Still am ma on friend man I don't see anything that Nene Cham does but people bring it to me people bring it to my attention yes people bring it to my attention people send it to us Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi waaj ñu ngi mm-hmm. waaj interview bu saf sàppate wax naa ko ne ne ko ñun suñu ay mbir du yolom day tayit rek lu saf sàpp la te wax naa ko ko te nag wax dëgg neex yàlla acceptal na ma ko si jamono juñ waxee xaw ma nag mun naa toog change maay mind waaye nag xam naa ne I have that smooth relationship with Nene Cham despite lu xapul yëpp mm-hmm. waaye yow itamit ñu ngi laa gërëm bu ma waxtaanee pour si yow ne la maa ngi waaj pour def interview bu saf sàppa ak sama diggante Nene Cham way before sax issue boobu amoon la bu mu ñu tegaloon li nga xam ne mooy raas gis eh, nga nangul ma ko nga ne ma ne ñun plateforme lañ am media la nekkul ne suñu waxee suñu rek duñ dem def suñu liggéey so nga yombalal ma liggéey bi ba tax nag man naa nee na ñu ngi cee dox ci suuf incha allahu rabi bés bu ñu defee jàkkaarloo ak nee na caam dina neex te nag dinañ ko laaj lépp loo xam ne askan bi ñu ko jaarale si suuf nag comme nu mu doon jaaree si suuf dinañ ko ko laaj te nee na dina respond ci loolu comme lu ma la wax na tey mënumaa dalal nee na caam mënumaa dalal jaawo ndik jaawo lu mu war a wax dafa bari te jaawo tamit ñu ngi koo gërëm di ko sant Juuf ndik jaawo dafa bëggoon a def live waaye du doon carré moo wéet akay jaawo rek ci wax ak jaawo rek ci ay mbooloo yam rek ñun dabuñ ko sax waaye du doon carré wéet bu defee live fi boppam ba tax dina doon rafet mu dem ci plateforme moo xam si ñun la moo xam si Fatou Network la oo ak ñeneen ñi nga xam ne sax ñu ngee ber seen dara di def seeni ay mbir ku mënoon a dugg si ñu ñëw pencoo ko waxtaan di gaawo so not representing himself mu ngi represent Gambia mu ngi represent Banjul so ñu ngi ko rafetlu ba tax na wax na ko indi na ko indi wuñ jaawo pour mu jafal ñu projet pour mu outline ñu projet sami loolu taxul ñu indi ko lu tax ñu indi ko mooy mbamba bu ko toppa loolu lañ ko doon laaj comme mbamba bu toppoon griffe laajuñ ko sénégal sétankar sétankar yi xam nga ñoom seen bugga bugga la ñoo wax waaye du tere ñun ñu def suñ liggéey the reason partly iba lu tax ma wax li ma wax mooy amna na am na ñoo xam ne ñu ngi ñoo déglu di ñu seetaan ku si mel ni aji fanta jaase di fi biñ waxee ak moom si la ma bloc ñu bari si ñoom waaw dama leen bugg xamal ne bloc ñu bloc ñu doesn't take care of it suñ defee su gaay defee luñ warta def wala luñ war wax dinañ ko wax and we will get enough information to talk to them déedéet dama leen bugg a xamal loolu rek we will talk about eh, them jot boobu noonu fooguma ko duwut ne dañoo baax comme lu jaaw wax la waaye ku ci nekk te comme sondeel rek eh, nu mu ne ci ñu nit yaakaar naa ne noonu lañ mënee suñu boor duñu baax ko nag ku wéet xam nga sa boppa tax nag duñu fi tudda tudd aji fanta keneen ak keneen a ci em seen gis-gis lañ wax ebi nañ seen i gis-gis ñu ni tamit ñu gis suñu gis-gis laaj ko askan bi gis seen i gis-gis ñu indi ko laaj ko jaawo waaye nag defoon nañ tamit bu jaawo taxawee rek nekkoon moom kenn nekkoon independent candidate invite woon nañ ko mu ñëw ñu laaj ko mu outline li nga xam ne moom pare na pour defal ko Banjul te jaawo ansoon na si loolu amutoon anything loo xamante ne eh, négat àndoon na ak négativité ñu laaj ko jaawo waaye bii nag lu ko maanaam di controverse bi ko suuraa loolu lañ ko fi indee moo tax ñu te plateforme bi sax especially xew-xewi jamono du politique su fekkoon été politique la moom amuñ dala ñoo ragal comme li nga wax la gannaaw bañut ku la boow waaye ak ñu lay boow yaa ah. kon ñu xam nga xam nga Iba daf askan wi wala di fàttali suñu askan wi sometimes daf dee baax ñuy jàngal suñu askan wi di fàttali sometimes on certain things su ma ko waxee the longest su ko defee gars ne ah Paus xanaa yow li la gars yi di block daf la ne daf la métti te fekk laa I said at every point Paus has over thousand pending friend request ñoo xam ne ñu ngi xaar pour man ma accept request wala ma add leen. non waaye good ñu jàngal gaa it's good ñu jàngal gaa yi de ma ne dafa baax pour ñu jàngal gaa yi ñu am looloo bàyyi ma wax lii bàyyi ma wax li bàyyi ma wax lii ah? non aji fanta aji fanta laa wax xam nga naka laa xamee ne daf ma block ah tey ngaa bay aji fanta xanaa blogueur bi ma aji fanta si jaama xaaral ma jàngal ko xaaral ma jàngal ko ak ñuy déglu because dañ wax si moom te liñ wax si moom plaisanut di following week nekk birthday am ma dugga di dem si péjam bi pour dugga pour wish ko happy birthday génne fantaam pour wish ko happy birthday noonu laa gisee ne daf ma block to moom mu ngi